bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa wala ginnaaw sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam seede ni amul kenn ku yooyu jaamu ci dëkk jaamu gi di in njëriñ ñàkk gee jaamu di ndar ku dul borom bi subhanahu wa taala waaye di seede dëggal ni muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenent yàlla la yàlla subhanahu wa taala daf ko yónni ngir mu jëleen ci lëndëm daal di ñu yóbbu ci li nga xamante ni moom mooy leer amaana comme niñ ko xamee mu nekk activité boo xamante ne dañ koy faral di def chaque année bu fekkente ne école tëj ne ba am ay un mois wala un mois quinze jours amal benn activité boo xamante ne nii nit ñi dañ ciy présenté après li nga xamante ni moom mooy liggéey bi nga xamante ne parce que nañ koo liggéeyee ci année scolaire bi ñu nekk muy année scolaire deux mille neuf deux mille dix ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala maa di ñuy may yéene bu sell ci li nga xamante ni mooy suñu jubluwaay daal di ñuy yombalal ba liggéey bi nga xamante ni bëgg nañ kaa taxawee mu nekk loo xamante ni luy yomb la amaana comme niñ ko xamee heure bi ñu waroon commencé daan nañ koy passé li ko waral moom mooy gàllankoor dafa am ay gàllankoor yu ko waral maanaam ñu jégalu yàlla subhanahu wa taala day jégalu comme waxtu dafa xaw a dem yaakaar naa du ñu guddal dañuy jox message daay dugg ci waxtaan bi thème bi nga xamante ne nii nag war nañu koo taxawee moom mooy ak moom mooy jaalibul axlaaq fii manhaj salaf kon dañu gën a dañ koy jox kàddu gi bu ko defee moo dugg ci waxtaan insha allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الجانب الأخلاقي في المنهج السلفي إن مما لا يتجاذب فيه اثنان من أهل العلم الموثوقين بعلمهم بأن منهج السلف يعني منهج أهل السنة والجماعة هو أفضل المناهج على وجه الأرض وأفضل مما سلكه السالكون بعد غياب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن منهجهم أقرب بل أقول هو المنهج الذي كان عليه النبي وأصحابه وهو المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن المعلوم أن منهج السلف منهج شامل لجميع الجهات والجوانب عقيدة وعبادة وسلوكا mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu ngi tuub di jëm ci suñu borom di jéggalu sunuy ñaawteef ak sunu rëcc-rëcc di seere ni képp koo xam ne borom bi subhanahu wa taala gindi na ko ko gindeeku lay doon ba faaw te dara mënatu koo dëngaloo ci ku sunu borom bàyyee ak boppam ba mu sànk ku sànku lay doon ba faaw te dara mënatu koo gindee ci nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu ci jaamam yi mu ñuy gindi nu ngi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq fi dunia wal axira comme ni ko mbokk mi ishaara mawdoo bi ñu amoon yéene fàttalente ci mu ngi jëm ci aljaanibu al axlaaqi fi l manhaji salafi wet goo xam ne dafay toppatoo wàllu jikko ak i melokaan ak i jëblante ci biir manhaju salaf manhaju salaf nag du baat bu yees ci sunuy nopp ñu di ko dégg waaye xamees na mooy lan te buñ ne manhaju salaf ñu ngi ci dem manhaju salafu saalih ci mbir yi nga xam ni kenn ci ñaar ñoo xam ni yàlla baaxee na leen xam-xam bu set kenn du ca wuute ci ñoom ñaar ci ni manhaju salaf te di manhaju ahlu sunna wal jamaa mooy li gën ci yoon yi nga xam ni doomu aadama yi soobu nañ ko te wuute ci lool ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen bi fi yonent bi jógee ba yonent bi dund ak saxaabaam manhaju salaf ak manhaju leneen amul woon ndax dañ koo aajowut woon ba fi yonent bi bàyyi ko sallallahu alayhi wa sallam ak juuyoo tàmbalee am ay doomu aadama di jaar ci yeneen saawa yu wuuteeg yonent bi yaroon ak saxaabaam ah ca la mag ña nag tàmbale am fulla ju doy ni tool bi kat bu njëkkoon ñagee su ko ndax amutum róor waaye léegi kat faaw ñu wutal ko ay ñag ba ku ñëw xam ni fii la tool bi tàmbalee fee la yem lii lay bëgg lee lay bañ te loolu xam ngeen ne aajowuñ ko woon ci jamono jooja loolu moo tax borom xam-xam yi tër aw yoon wala boog yeetal ndax yoon wi sax sunu borom ko tër yonent bi jaar ci yeetalaat yoon wi wutal ko ay ñag wutal ko ay jumtukaay ak i mandarga yoo xam ni lu waay sànk woon sànk bu la yàlla na muy gindi boo yegsee da nga xam ni lii kat moom la te it moo gën leneen lu dut moom loola nag xëccoo gi nga xam ni moo ci am ba ñuy askanoo manhaj bi ñu di leen sànni ay baat loola wax dëgg yàlla man jàpp mu ni sax nag kenn ci ñun war naa am jotu sax di ko tontu wala di ko mettit lu déedéet ndax loolu du lu yees tàmbalee ko ca yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba ca saxaaba ya dañ leen doon sànni ay baat waaye baat yooyu ñu lay sànni lay fulla mooy bañ koo déglu ndax ka lay sànni baat dafa yëg ni raw nga ko ba noppi te doomu aadama bu fekkee raw nga ko bokk na ci xeeti pexe yam def pour mën laa tardeel mooy di la sànni baat ngir jéegoo ya nga waroon a daw jëm ca kanam nga dëpp ko di tontu moom la waxkatu arab ba doon wax ju am solo mu ni bu doon xaj bu baw bu ne nga bëgg a dëpp ngir sànni koo xeer mu noppi mais di nga dem ba boo yoroon ne junni da nga bëgg xeer ci doo ko am ndax xaj yi baw danoo bari loolu nag dafay dëgëral ki nga xam ni tànn na yoon wii di manhaju salaf wala alla lu jiitu ci ay nit yu yàgg amana sax ñenn ci ñun jaaroon nañ ci ay jaar jaar yoo xam ne wuuti nañu fi nu téeree ci tey waaye bi leen yàlla baaxee day manhaj bi leer ci seen bopp xam nañ ne amut ci kaw suuf lu nuy gaaral ab julit lu gën a wér manhaju salafu saalih amut ndax kat ginnaaw boo xam ne yonent bi jóge na fi ay yoon yu bari nit ñi jaar ca yoon wi nga xamante ni mooy manhaju salaf mooy almahajjatul bayda wa yonent bi digge woon sallallahu alayhi wa sallam ni guddi gaag bëccëg ga ñoo bokk yam ci leeraay ak mën a gindee wax dëgg yàlla ku jeng jàdd feneen da nga nar a sànk rek manhaju salaf nag mbokk yi ñu xam ni manhaj la bu matale la ci mboolem wet yi soo dikkee ci wàllu la nuy fas da ngay fekk lu mat sëkk lay doon te wér boo dikkee ci wàllu jaamu yàlla da ngay fekk ni lu mat sëkk lay doon te wér waaye boo dikkee ci wàllu jikko ak jëflante nag da ngay gis ni lu mat sëkk lay doon tamit te wér su ma fàttalikoo dafa mel ni mawdoo bu mel nii aw tëggina ma wuute waaye def nañ ci ñaari jataay ak mbokk yi benn baa nga nekkoon ci min axbaari salaf wa axlaaqihim ba ca des di min axbaari nisaai salaf wa axlaaqihim la taxoon nu tànn loola mooy yëg gu nu yëgoon ni kat wet ak jaamu yàlla ak pas-pas moom ñi askano manhaju salaf fi mu ne amuñ ci moroom ay jàmbaar lañ ci lool waaye wetuk jikko moom ak i melokaan moom daf dañ koo gannaawal lool kon bu fekkee ñun ñoo tànnoon yooyee mbokk yi yéen a yiw tax ñu tànn mawdoo bu mel nii kon bii dafay ñëw mel ni luy mottali yoo yële donte ñoo bokk genn saawa bu nar a jaar waaye ñoo nar a wuuti ay bànqaasit nag bu ko defee kon ki def ak seetlu day gis ni ñi nga xam ne tey ñooy askanoo ci manhaju salaf ah soo dikkee ci wàllu jaamu yàlla day da nga leen di fekk ñu mel ni magi salaf ya wala am ñu mel ni magi salaf yi ci jaamu yàlla soo dikkee ci wàllu pas-pas moom da ngay fekk ñu fas lu set lu mel ne la magi salaf ya fasoon waaye boo dikkee ci wàllu jikko ak jëflante moom damay wax ni uskut xatta la naftadix boo bëggee suñu gàcce bañ a feeñ da ngay noppi bañ caa wax dara wa hada in dalla ala cheyin fa innama yadullu ala annana naعtaqidu anna almanhaj alsalafi cibadatun wa aqida lakin la qimata lil axlaq wala lil muamalati fii su fekkee am na leen lu mën a tegtale day dafay mel ni nun dañoo jàpp ne manhajub salaf moom wetu jaamu yàlla nga rekk ca am solo moo tax nan koy jëfe te di ko nettali wetug lan doon fas rekk am solo nan koy jëfe te di ko nettali fekk déedéet wetug nan doon jëflantee ak jikko yi ñu amoon day dara gën ko ca am solo moo tax lii mooy sabab bi tax xeeti iwi jaajaat yi ñu gis tey ay dëng-dëng ki rëq-rëq ci biir manhaj bi ah wax dëgg yàlla nag bu nu dajee ci barab yu ruqe ba mel nii nga xam ne nunu neen la ci sunu biir ah nafaraat sunu manhaj yi ca baax ñu santee ko sunu borom tey di geestu nag yi ca sikku te loola ci ñun la loola jaadu na nag wet gi nu nam ma jàngat tey ñu jàng ko bu baax nafar ko ndax bunt bi day moo tax damay wax ni xaddis na an axbaari salaf li kay naftadix saa boo bëggee daal al axlaaqi salaf saa boo bëggee see suñu gàcce feeñ doo ko jaare ci wàllu jaamu yàlla sax ndax am na ñuy góorgóorlu bu baax ci wet googa soo bëggee suñu gàcce feeñ it doo ko jaare ci wàllu la nuy fas ndax alhamdulilah ñu ngi fas lu set waaye boo bëggee gàcce gi feeñ dëgg da nga koy jaare ci wàllu seeni jikko ak nan doon jëflantee ci seeni biir am mbokk mi ngi may nettali nettali boo xam ne li muy naqari naqari ci xoolit dëgg la menn magum Sufyaan ka mu doon tafsir suuratul furqaan ba yegg si ca jeexintal ya ba mu tafsiree aaya adaabu rahmaan alladina yamsuuna ala al ardi hawnan ba yeggal dafa wax ni ñii ñooy ñi ñuy tuddee ibaadu yi ci terme yi ngeen ko xamee wax melokaan yi ba mu yegg mu ne am na ñu leen di roy waaye li ma wérte wóor ma mooy laa yad'uuna maa allahi ilahan axara moom wér na ma ni moom amuñ ci morom waaye bu tom boobu jàllee yi ci des ñoom ñépp a ci yem loolu aw xas la wu métti ci ñun tey dëgg la nag mbokk yi moom kenn mënul fexe ba nu bokkaale yàlla wala li ëpp ci ñoom buntu bokkaale moom fexe nañ ba fatt waaye boo duggee ñoom ci wàllu jëblante ak jikko saa saa sax da ngay ngéejoo jëblante ku dul kuy askanoo ca manhaj ba moo lay gënal jëflanteeg koo xam ne ma ngay askanoo ca manhaj bi te loolu wax dëgg yàlla lu sibu la te it gënut nag dafa yàq deru manhaj bi nag ànd ak ñu xam ni wet ak jikko ci biir manhajub salaf te bu ma nee wetu jikko xamal ne raaxaale naa ci jëflante gu rafet te mooy gi nu ñàkk tey ci biir manhajub salaf salafu saalax de dañ koo joxoon yitte ju rëy yitte ju mag a mag a mag lan joxoon wet ak jikko di ca sonn di ca yare di ca jàngale bal boo jàngee seeni dund da ngay gis ni ñoom coono bi ñu doon daj ci wet ak jikko moo gën a foor lan doon daj sax ci wetu sàkku xam-xam bal dañ doon jiital ak defaru ci sàkku xam-xam te buñ nee defaru ñu ngi ci namu jikko jaag jëflante ak melokaan ñi ngay amee ak yéemu ci buñ lay nettali salafu saalex ci seeni jaamu yàlla ak nan dëgëree woon ci seeni pas-pas kal jibaali raasixaat nu ko raw noonu nga yéemoo ci buñ lay nettali ñoom nit yan doonoon ci wàllu jëflante ak i melokaan al imam al buxaari mi ngi nettali ci téeréem boobu di adabul mufrad ibni saadin di nettali loolu ci at-tabaqaat imam bayhaqi tamit kadalik cheikh nasirul albani ci saxixa mu ni lu wér la yonent yàlla bi dani innama buistu li utammima makarim al axlaaq yàlla daf maa yónni ngir lim fi jot a fekk ci ay jikko yu rafet ndax am na lu fi nekkoon dafa bëri wut waaye li fi nekkoon ci ay jikko nag mu muttili ko baaxal ko nag ba ku xool aji gëm yàlla ji day xam ni kii kat université ba mu génnee alxuraan moo fay yare sunu borom tagg bi gën a rëy bu mu tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu jikko la xam ngeen ko ci suratul qalam wa innaka la ala xuluqin azim ah yow day dëgg dëgg nag fi mu ne nag moom am nga diplôme bu kawe te li la ko may mooy jikko yu rafet sallallahu alayhi wa sallam sunu borom ñun ñi nga xam ni ñoo ñëw ci gannaaw saxaaba yi ak saxaaba yi alxuraan la wàcc ca ñoom yàlla sàkku ci ñoom nanu roy seen ab yonent bokk na ci liñ koy royee mooy melokaan yii di ay jikko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axir wa dakara allaha kasira nun de am nañ ab royukaay bu rafet ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam royukaay boo xam ni doy na te ñeel képp koo xam ni gëm na yàlla gëm bis penc te it nag bokk ci ñi nga xam ni jaamukati yàlla yu mag yi koy tudd fu mën a toll la looloo tax mbokk yi ba saxaaba ya góorgóorloo ci santaane bii ca loola la leen suñu borom taggee kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar mu doog a indi wa tu'minuuna billah bu dee ñun ñi nga xam ne wàllu aqida ak yépp dañ koy jiital ci wàllu jikkoo ki melokaan ak jëflante foofu moom dafay mel ni dalay wan ni jëflante gi jikko ji de gën naa foor gëm nga même bu demee wut noonu loolu lay wane kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar te lii day dugg ci buntab daawa ci buntu jaamu yàlla waaye ci buntu jëflante ndax kii daawa faaw mu jëflante gi mu doogaa ni wa tuminuna billah lii moo tax ñi njëkk ña amoon orma ci ñi nga xam ne sax doonu noonu ay julit waxuma laak sax ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir manhaj bi ak ñi nga xam ne dañoo ne ci biti manhaj bi toxal na jëlee ci imaamu Maalik imaamu daaril hijra da doon wax ni moom day dégg na ñum dëkkal ci ay chrétien ak ñoo xam duñu ay julit keroog bi julit ñu ubbee Shaam mboolam jullit ñi romb mboolam catholique yi ñu di leen xool di leen xool ba mu yàgg ñu ne ñun di wir nañu seen mbooloo mii moo nu gënal mbooloo ma àndoon ak Isa donte ñooña ci ñun ñoom lañ far loola ña ko wax waxantuwuñ ko te seede seede boo xam ni bu wér la te bàyyi ko cib noon te wér loola wax dëgg yàlla dafa amul maxraj ca fam ne wala amul làqukaay ba tax mu wax ko su ko defee kon loolu dafay wane ñooñu ak dëgg gu nu dëgg woon seen digganteeg seen boroom waaye seen digganteeg seeni moroom tamit amaana suñ mawdu ab tey bi kon day ñëw ngir mottali tomb yooyu ñu jujjoon sànq te ku ca dellu da nga ca fekk ay mbir ci salafu saaleh ci nin fegoo woon nin meloon ci julli guddi nin meloon ci ragal tooñ nin meloon ci am orma donte ñi leen góore duñu ay julit tudd nañ ci ay melokaan yu bari yii melokaan nag boo delloo ci min na magi salaf yi da nga cay fekk lu doy sëkk wax naa ni yàlla baaxee na xeetu lislaam yi ba am na ay muarrixuun yoo xam ni min al muarrixiin asiqaat te wax dëgg yàlla xam nañ ay càllale mën a topp yëwér ak yëwér boo delloo ci seen kàggu yooyu da nga cay fekk ay kéemaani yàlla ci ñii nan lañ meloon ci wàllu jikko ak i melokaan danaa ci cité rek lu mel ni siero alami nubala imaamu zahabi moo ko taalif téere bu rëy la tàmbale ci jamono yonent saa sallam ba ca jamonoom moom ba demee ca mu jalal ba ca mujj tudd na fa ay imaam yoo xam ni jàngal nañ ko moom zahabi lu ci mel ni sifatu safwa kooku ibnil jawzi moo ko taalif daanaka ci manhaj bi borom siyar taalifee la taalifee kee da koo gën a guddulee gën koo yaatule wa kadalika lu mel ni usudul gaaba imam ibn al athir moo ko taalif ci anam googu kooku saxaaba ya rekk la nag ak yeneen yu bari lu mel ni isaaba fi tamyiz al xaafis ibnu xajar moo ko taalif kooku tamit ci saxaaba ya rekk la yii téere boo ca delloo ak yeneen yu dul ñoom da nga cay fekk li ëpp ci li ma nar a wax waaye xam ngeen ni jaalis wàllu jikko dafa yaatu lool waxtu wi ngeen tànn tuuti na lool ngir waxtaanee ko su ko defee dafa bokk ci xereñe kon nu seet melokaan yi nga xam ni tey fi mu ne moom lañ gën a gën a aajowoo ci wàllu jikko ñu tànn yooya wax ca laal la ñeneen danañ wax ca yeneen wala waxtu danañu mayaat beneen yoon ñu wax ci leneen ba ma dajalee tomb yooyu daal seet ya ñi ca ñor bari na lool waaye yi mënta ñàkk ñu tàmbalee ca mooy assalaf wa sifatul amaana salafu saalex ak wóor fu mu leen tolloon bu leen jàpp ni tërinu mawdoo bi dafa tëddee nii déedéet nun noo sabablu taamu jiital bii ndaxam am lu muy yëg loo xam ni jàpp naa ne su ma ci duggee ba génn ci yéen it di ngeen ko yëg mooy jamono bi ñu toll moom wóor ci boppam dafa nekk melokaan wu faatu ci biir mën a xajub salaf wóor ñu koy wax al amaana ab jikko la ab melokaan la ab jëflante la kon dajale na yi ma soxla yépp ci mawdu am wóor nag buñ ko waxee mooy sàmm àq yàlla ci yow ba mu wóor ci def la la war def lan lay sàkku ci ay sunan timit sàmm àq jaam yi it nag sa diggante ak ñoom fexe ba doo soxlaal kenn lenn lépp luñ la dénk da nga ko sàmm càmmuteef nga war ku ñu dénk doo yor mbir di ko pasar pasaree fasar fasare ku gëmul ni yàlla dana ko xisaab ca loola waaye nag doo sàggan càggante ku gëmul ni bis dana ñëw ma dajeeg sama borom subhanahu wa taala su dee ci wàllu liggéey danaa ca wóor ba àq ya ma am ca liggéey ba ma jox ko ko ba mu mat benn waxtu du ma ko sànk te xam ngeen ni bunt bii mbokk yi kenn ku nekk ci ñun bu dee bëgg na ci boppam lu baax bu ci nattee boppam dana ci gis boppam wóor moom fi mu ne dafa mel ni dafa faatu ci biir manhaj bi bu njëkkoon da ngay ay nit wóor yoo xam ni ba ci jamono bi ñuy dund ñi nga xam dañoo nekk ci xaarijal manhaj sax dañ nuy askane lu mel noonu maanaam ñoom seen yëpp da ngay dégg ñu ne mbokk yi lañ ci wóolu bu ngeen ko yëgee ak bu ngeen ko yëgut loolu mi ngi tàmbalee yàqu segam yàquut ba jeex sax laay wax nag faf ndax ña doon wax loola ñenn ca seen biir jëflante nañu ak ñoom jëflante yu ñaaw yoo xam ni kuy askanoo lislaam sax waru koo jëflanteeg mbokkam waxuma la ak nag koo xam ni mi ngi nag ni moom ca biir lislaam ja nag day tànn yoon ba nga xamante ni moo gën a mucc muy mën a xaju salaf mu jaar ci bu fekkee ci wàllu liggéey la dama koy jox heure yi ba mat sëkk bu dee ci jaay ak jënd du ma lekkal kenn benn àq su dee ci xam-xamit nag ma am ñorat ful la ju doy ni du ma wax lu ma xamut te luñ ma laaj lu ma xamut tontu ba mooy noppi lii mooy wóor wóor nag mbokk yi dafa bokk ci àq yi nga xam ni yàlla da koo am ci yow sa mbokki jullit yi tamit am ko ci yow tënkuwut comme ni ko ñenn ñu fooki foogee rek maanaam wóor mooy nit ki liñ ko dénk rek bu ko defee saa bu joxe ko jotee na ko joxe waat déedéet loola lenn la ci waaye lu tuuti la ci wàllu mbiru diine yi da nga ciy fekk wóor ci mbiru àddina yi tamit kadaalika nga di ko ci fekk ki wóor nag mooy koo xam ne dafay jël ay matukaayam ci lépp ci digganteem ak boroomam ci digganteem ak ay moroomam du sàggan ci lenn al imaamul buxaari mi ngi nettali ci saxiixam xadis boo xam ne abdullah ibn omar moo ko solo mu ne yonent yàlla bi nee na kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati kenn ku nekk ci nit ñi ab sàmm nga te sàmm bu nekk ëllëg yàlla dina ko xisaab laaj ko lam doon sàmm nu mu ko doon sàmmee déglul bu baax mu ne al imaamu raain wa masulun an raiyati imaam ji sàmm la te dinañ ko laaj lam doon sàmm ëllëg buñ ne imaam nag tënkuwut ci jiite katub jàkka rek déedéet tàmbale ko ca ka jiite jullit ñi ka jiite réew mi ka jiite mbooloo mi ka jiite koñ ba ka jiite jàkka ji ba ci ki jiite ci kër gi mën naa jël baatab imaam te dañ ko laaj lam doon sàmm góor gu nekk sàmm nga sa biir kër ak sa njaboot ak say soxna ak say doom daañ lañ laaj la nga doon sàmm ak sab liggéey it nag jigéen ji sàmm la ci kër borom këram ndax wóor gi soxla woon ci jigéen juy sëy am na ci moom wala déet mbindaan bi sàmm la ci alali jaatigeem ndax wóoroon na ca wala déet ba mu paree mu defaat li ñuy tuddee tawkiit fedd liwaat ni kullukum raain wa kullukum masulun an raayati alimamu tirmidi mi ngi nettali ci sunan abi daawud kadalik ci xadis abi hurayra yent yàlla mu ni addil amaanata ila man itamanat wala taxun man xaanak dellool kóolute ca këla wóolu même bu la nit woree bul ko wor ndax yàlla ca lam la war la koy xisaab waaye bu lay xisaab ci li nga ko war la lay xisaab soo delloo ci musnad ahmad ci xadis boo xam ne anas ibni malik moo ko nettali mu ne yent bi nee na laa imaana liman laa amaanata lahu képp koo xam ni wóoroo ngëm yàlla amut fa yow déglul bu baax laa imaana liman laa amaanata lahu ngëm yàlla nekkul ci koo xam ni wóor amut ci moom képp koo xam ni wóoroo joxoñal sa ngëm yàlla baatab tuuma mu ni wala diina li man laa ahda la koo xam ni amut kóllëre du sàmm kóllëre kooka diineem des na matul yenent bi dafa toog sallallahu alayhi wa sallam ci xadis wax mi ngi ci buxaari te xam ngeen amaana yéen ci sunu borom tudd na ko ci alquran إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظالما جهولا كل تقول ñu soxla ci biir manhaj bi te soxla ko ci mépp julit nag dafa rawati fii yàlla nee na ba mu ko sàkkee da koo jox asamaan mu ni ko déet sunu borom bii moom wax dëgg yàlla diis na ci man àttanu ma ko sunu borom yëkkati jox suuf suuf ni ko moom koy li asamaan wax laay wax ndax lu mu àttanu man mii xam nga ne àttanu ma ko su montagne yi tamit kadalik doomu aadama nag nga xamante ni moom daanaka yëg-yëgam bëriwul mu daal di koy yenn moo taxit tooñ rek la ca def la ca dëkke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis wax mi ngi ci buxaari yi abi hurayra di ko nettali benn bis dafa toog di jàngal saxaaba yi ba mu yàgg muy benn kaw-kaw daal di ñëw ma kaw-kaw yi ñoom ñi ci ëpp seen yoon nekkul ci lu bari bu ñëwoon fekk yonent bi jàngal duñu xaar yëpp yi yegg lañ soxla lañ koy wax ci digg mbooloom waa ji dikk dog yonent bi ni ko kañ la àddina yi tukki laa bëgg nga wax ma yonent bi daal di finati xool beneen côté continué lam doon def ñenn ci saxaaba yi ni amaana da koo déggu ñeneen ñoo xam kay dégg na ko da koo faalewu yonent bi jàngale ma jàngale ma yegg mu ne waaw ki doon laaj sànq kamu waa ji jub ni ko man la yonent yàlla bi ni ko loo doon laaj mu ni ko kañ la àllaaxira laa bëgg a xam mu ne ko saa buñ demee ba sànq kóolute xamal ni àddina jeex na ba noppi waaye damay wax ne kaw kaw yi li ñuy tixit tixit di féex féex di ñàkk dégg fiq bii kaw kaw moom dégg na fiq ndax nee na yonent bi sànkute gi nu muy demee loolu ko amut fiq du ko laaj mu ne ko waaw sànkute gi moom nan lay demee mu ne ko saa buñ demee ba mbir ma nga xam ne daan tànn kun daan wóolu mu man ko ñu jox ko ko ñu dem ba tànn koo xam ni wóoratut wala boog bu wóorat mënut lan ko jox ñu dénk ko ko yëf yaa ngi bëgg a jaxasoo kon àddina jeex na ba noppi subhanallah xoolal tey man man waxuma sax ay postu àddina yeeg ndombay tànk yeeg ñi nga xam ne moom lislaam tënku leen waxuma ñooñu waaye xatta ñun ñi nga xam ne nee nañ dañuy góorgóorlu ci bi mën a jël salaf sunu tànnin sax jooy gi am na ci ndax am buñ doon fal imam wala ñuy tànn borom xam-xam wala ñuy tànn ku nu jiite moo xam seen mbooloo mii nga xam ni elaw yee ci daje moo xam ki ñu jiite ci biir école lu mu ca mën a doon ay sentiment du ca ànd di ndax mbirum mbiram lislaam la nag la jaar mooy kenn ku nekk ci ñun ñun natt ko xool ndax kii liñ koy dénk mérito na ko wala déet man na ko wala déet xam ngeen ni giig sànkute moom ci biir manhaju salaf dafay fees dell yonent yàlla bi saa sallam ci hadis wax Maaqil ibn Yasaar moo ko solo mu ni képp koo xam ne dénk nañ ko lan ko dénk mënu ko ba noppi mu jël ko ba tax mu sànk lenn ca lan ko dénk wala nañ ko dénk na yëg ni xetuk àjjana du ko xeeñ hadis mi ngi ci Buxaari Muslim képp kuñ dénk mbir nga jiite ay nit wala dénk na ay yëf yëfaan mënoo ko ba noppi wala jekkuwoo ko nga ñu ñu fal la nga jël ba liggéey ba sànk wala mu sooxe wala nga war ña nga jiite ak noo mën a mel xetu àjjana du la xeeñ loolu mbokk yi jar na buñ la waxatee sax kaay ñu fal la bañal lenn ci ndombay tànk yi ci diine ak bitib diine boo mënee bañ a jël moo gën su mënta ñàkk képp nag nga doog a sédd ragal yàlla ca la ngay jël soo delloo ci Buxaari Muslim ci xadis ab Xusayfa borom fiq bu xóot bi fi fannil fitan dani yent yàlla bi de waxal nañu ñaari mbir yoo xam ni benn bi gis naa ko bi ci des gisal guma ko yent yàlla bi nee na kóolute de muy wóor yàlla mi ngi ko wàcce ci xolu góoru gaa yu dëgër yi alxuraan doog a wàcc si nag gaa yi jàng alxuraan jëfe sunna commencé di jëfe xusayfa mu ni yent yàlla bi nettali nañu ne kóolute dana yëkkatiku kóolute dana fi jóge wóor jikkob wóor dana fi jóge da ngay xëy rek mu ne yanaamu rajulu nawma fa tuqbadu l amaana min qalbi man wala yéen kenn ci ñun day tëdd nelaw rek biig nga tëdd nga nelaw nga yeewu rek fekk wóor déglul bu baax ku wóoroon nga yow wóoroon nga ba yow sax wóor na ni wóoroon nga waaye biig nga tëdd nga yeewu tey rek bi nga yeewoo yeewwaale caay-caay goo xam ni wala dil boo tëral boo xam ne yow lii lu mu la mën a dalee dalaa jaaxal fekk rocc nañ wóor ci sa xol mu ne fa tuqbadu min qalbi da ngay tëdd guddi rek comme ñu ngi ci mujjug jamono ñu rocc wóor mu dem bu ko defee jeexintal mi dafay des yént yàlla mu ne mislu asaril waqt gis nga xoosu xoosu wala marque marque wala ki doon jukki wala liggéeykat bi dem ba loxoy def ay tut ay gaañu gaañu nee na ay marque marque mooy des ci xol bi yuy wane ne fii la wóor tege war waaye nekkatu fi nee na nga tëddaat beneen guddi rek mu ni fa tuqbadu fa yabqa asaruha misla almijli ka jamrin daxrajtahu daxrajtahu ala rijlik yént yàlla bi nee na da ngay tëddaat beneen guddi rek yeewu nag faf nag la fa desoon ci ay jeexintal sax ndax ñu buub ko yóbbu muy xam nga lu fay des léegi boo jëloon sa tànk nga dëgg ko ci xal nooy def da nga yëkkati boo yëkkati après boo toogee ñaari fan nu tànk bi dem dafay futt futt futt ba day neewe nga defee ne lu rëy la lu ca nekk am ndox dong la boo koy bës muy pàcc di génn mu ne xol bi noonu lay mel dara ñëwatu ci ab day mel daal daraa nga fa rek ab futt futt la allahu akbar kii la yàlla joxoon jawaami ul kalim ci fasanti koy baataka feccanti ku te mu leer te gàtt yent yàlla mu ni fa nafita fa taraahu muntabiran wa laysa fihi shay funki na ba ca kaw ku ko seen yaakaar ne lu ne ca ne mu ne muntabiran daa funki de waaye wa laysa fihi shay dara ne wuf moo lay wax ni wóor moom dara nekkatu ci sa xol bi xusayfa mu ni fa yusbixu nnaasu yatabaayauuna fala yakaadu axadukum yuaddi l amaana nit ñi nag dañuy commencé léegi di def li ñu tuddee jaay ak jënd commerce waaye amut kuy sàmm wóor mu ne fa yuqaalu inna fi bani fulanin rajulan amina da ngay dégg ñu ni seet tët tët tët boo demee kër ñoom diw wala dëkk ñoom diw maanaam fii ngay toog diglu bu baax yonente bi li muy jàngale wallahi li ci kéemaane mooy lii muy wax dafa mel ni démb ci ngoon la kon wax ma ñëw tey pour jotti leen ko ndax li muy wax loolu la ñuy dund da ngay dégg wóor dafay jafe ba dootuñ gisati ku wóor boo gisee ren ku wóor déwén ngay gisaat keneen da ngay dégg ku ni boo demee ci famille ñoom diw am na fa waajoo xam ne lum la wax du teppeeku ndax wóor léegi fi mu ne ñi wóor dañ leen di tànn xusayf mu da ngay dégg ñu wa yuqaalu rajuli ma aqalahu nga dégg ñu nan si diwa muus diw moo ñor diw moo bari bagage diw moo di intellectuel comme ni ñu koy waxee yonent yàlla bi ne wa ma fi qalbihi misqaalu xabbati xardalin min iman te fekk kooka ñuy wax naan moo ñor ak moo muus ab topp ci ngëm sax desatu ci xolam ndax wóor yëkkatiku na ba dem xusayfa nee na wa laqad ata alaya zamanun ma ubaali ayukum baayaatu xusayfa mu ni man amoon na jamono boo xam ni man ki may jaayanteel ak a jëflante jëndanteeg moom ndax jullit laa du jullit sama yoon nekku ci ndax wóor amoon na ci ñëpp ñu ne ko ci jullit ñi mu ne waaw waaw ndax jullit bi suñ jëflantee bu njuuj njaaj naree am ci moom bu ñibbee këram ngëm yàllaam ak wóoram mooy tax mu delloo si li ëpp ñu ne ko waaw d'accord nañ foofu waaw yéefar bi moom kon wóor lu muy amee ci moom mu ne jamono jooju lislaam dafa wasaara woon ba dominé ba ki dul ab jullit jullit ñee ko yilif bu defee caay-caay bu rëq ndiggam kon loola la doon ragal moo tax moom it day wóor xusayfa mu ni léegi nag amma al yawma fa ma kuntu ubaayiu illa fulanan wa fulana xusayfa nee na léegi nag fi ne même kaay jaay ma pantalon bu ma sol sax damay xool ki may jaay ku mu ndax wóolootuma kenn la hawla wala quwata illa billah xusayfatu bnu alyamani alsaxaabiyu aljalil bu dikkoon sunu jamono jii te jamono ju sell da nga xam ne saxaaba ya am na ñoo xam ne ca kibaaru saxaaba sax faatoogun sigaaru saxaaba ne fa asxaabu bayaati ridwaan ne fa xeex ya amoon ñëpp ña ko fekkee woon ñu ca bari des fa abnaaw saxaaba des fa kibaaru taabiun des fa ay gaay ci taabiun yu wóor ba ñenn ci saxaaba yi naan leen bu leen yonent bi gisoon bëgg leen te xusayfa nee na jamonoom jooja wóolutul kenn kon bu ñëwoon fii danaan kon wóor amatul loolu lay wax mu jeex benn yoon kon tomb bii de tomb la boo xam ni gisuma nii tomb la bu ñuy ñeb ñebal rek jàll comme ni ma naan def yeneen tomb yi ci topp waaye faaw ñu taxaw ci ndax mbokk yi wóor ci boppam amatul ci biir manhaju salaf xam naa bu ma ko waxee nag kenn ci yéen dana yëngu xol ni wax naa lu diis waaye da dafa jaadu bu ñu wéetee nag ñu bàyyi raggante gannaaw yi te wax li am ci sunu biir bu nu jógee ñu jéem a faju ci wóor moom ci boppam amatu yonent yàlla bi nee na ab jamono ngi ñëw boo xam ni sa yati ala nnaasi sanawaatum xaddaa at yuy naxaati mais ay 2009 ay 2010 2000 nangam yonent yàlla mu ne sanawaatum xaddaa at yuy naxaati ñu ni ko yonent bi lan mooy at yuy naxaate mu ni at la yoo xam ni ka gënoon a mën a wax dëgg léegi mooy fenkat bi ci nit ñi ka gënoon a wóor léegi nit ñi nee nañ wóoratul ka gënoon a jubadi nit ñi moom lañ jàpp ne mooy ki wóor ndax léegi mbir mi daa jaxasoo léegi lépp la ñuy jaxase mu ne wayantuq fiiha ruwaybida léegi nag daanaka moom ak sàmba suraabaali soo xam ne amul benn valeur fenn mbirum jullit ñi saa bu yëkkati ko rek mooy njëkk a wax man damay tiit lii mbaa nun duñ ci dugg nun ndong ngay xam-xam yi nga xam ne ñoo gën a rëy làmmiñ ñépp te borom xam-xam yaa ngi fi ñuy wax ci ay masala yoo xamante ni daanaka feruñ ci ji sax bari ca mën a taqalee ka di boole loolu ñun ndong ngay war nañ cee bàyyi xel. kon mbokk yi kenn ku ne ci ñun day su mënoon a fexe ba wóor am ci boppam na yëg ni ci biir manhajub salaf moom bokk na ci melokaan yi gën a dëgër yay wan ni kii kat. ci melokaan yi salaf ne woon la nekk mooy melokaan wóor am njiit moom ay ndombay tànk lu mu mën a doon bul ca soxla leen mbaa xam nga ni ab jàngalekat la ñu ne la dañ laa jël ngay jàngale ci école bi nga ni waaw huit heures ngay dugg midi ngay wàcc nga ni waaw trois heures ngay dugg cinq heures ngay wàcc nga ni waaw ñu xaatimanteeg yow ñaata lañ lay fay ñu ne quarante mille lañ lay fay par weer ñu ne waaw gis nga saa boo xëysee heure bu manqué yëgal ne dugal nga ci sa solde lu xaram saa boo amee dugg dem ca te tàggoowoo ba ñu bàyyi la yëgal ni sa solde lu xaram dugg na ci saa booy jàngale ba mu yàgg sa xarit woo la téléphone bu nekk bitim réew nga génn jël trente minutes di wuyu xamal ni lekk nga trente minutes yi jàmm est-ce que lii ñu ngi koy sàmm laajuma leen damay dëggal damay wax déedéet benn professeur buy jàngale français moom mas a wax lu ma yéem loo xam dama rusloo man ma ni ñun ñi jàng diine de kon xawma lu war a wax nee na moom chaque jour bu wàcc jotee dafay yokk ci heure bi ay minutes lu tax waxuma ne li muy tay di ko waaye mu ne yëgul nit yëg wóoru ko ndax am na heure yu rëcc mu waroon ko jox xale yi sànq maanaam su waroon wàcc midi day def chaque jour midi et quart su waroon wàcc cinq heures day léegi cinq heures et quelque parce que heure heuraat yooyu yëpp yëppaat yooyu dafa bëgg mu remplacer yëpp yëppaat yële ndax li muy yóbbu ci jabootam mu lew lii ki ma ko wax kuy jàngale français la saab ndonga la jàngul sax ci dina lu bari kon nga xam ni ah am na ñuy góorgóorlu lu man beneen bi ci des mooy bu njëkkoon da ngay dégg ñu naan yii mbokk yi kay moom moom boo amee liggéey sax dénk leen wallahi léegi boo leen ko dénkee ñu sànq bu dee alal du lekk bu dee bor la duñ la fay booy jaay buñ la lebee bul leb bul leble duñ la fay parce que wóor amatul ci sunu biir li may wax lu leer lu mu métti métti ci xolit nag suñuy jàngoro la nag buñ la lebee bul lebale boo ma nee bañ a leble bañal ndax xusayfa nee na jamono bi nu toll wóolootuma kenn te jamono jooja la kon jamono jee gën a yey kon mbokk yi ah jar na kenn ku ci nekk mu bàyyi ci xel boo ma nee fexe lenn ci ndombay tànk yi bu ko takk Abu Zar daa gis magi saxaaba yi kenn ku ci nekk yonent bi di la fas fal fas Abu Zar ñëw ni ko yonent bi teg maa takkal benn ndomba tànk yonent bi daal di dóor mbagg yi ni ko Abu Zar yow daal yow da ngaa néew doole subhanallah est ce que jàngeen siira ba xam Abu Zar comme Omar ibn al-Khattab fonkal la woon mu njool siggi ca kaw rëy na jàpp Abu Zar ibn al-Ghifari yonent bi dóoru mbaggam ni ko yow da ngaa néew doole kon gan néew doole la yonent bi nam ma foofu ndax mooy doole ji ngeen xam déedéet ndekete doole nekkul ci force bi ngeen xam waaye doole mi ngi nekk ci maîtriser sa bopp ci tënk ko ci li yàlla bëgg ak mooy ci ndiku li yàlla xaraam kon ci tënk bu gën a gàtt bunt boobu mën a fas fasu dinaa tudd lenn ci melokaani salaf ci ñoom fan àggoon ci wóor benn abubakar siddiq a ngi nga xam ni dañuy joxe misaal ci moom ci wóor ci wàllu gàddu secret bu nee wóor nag comme ni ma ko waxee dafay làmb fànn yu bari boo dikkee sunu biir moom fi ne man damay am jafe-jafe wallahi lii may nettali nii lii may bëgg a nettali man mii dal na ma li may bëgg a nettali dal na ma man toll ci ay mbir bëgg caa waxtaan te wóoluma ci kenn ba fii may waxee waxuma ci ak kenn wallahi la li may nettali yàggul matut weer xaw ma lu tax dafa mbir yoo xamante nii man dama jàpp ne fi mu ne nii jamono bi nu toll ku wóor dëgg dëgg dëgg dëgg lan ko mën di dee awma lu dem ci jàkka ja julli ñaan yàlla subhanahu wa taala xalaas wa intahi la wóolu ma kenn lii la su ma xam mooy kenn wóorut ci àddina déedéet xëy na li ma ko wax mooy ñu wóor ñëpp am nañu wóor waaye mënu maa jot ci ñoom ñoom ñëpp waaye lii li tax ma di ko wax mooy ngir ngeen xam ni wóor ci boppam ñàkk wóor ga moom maa ca jiitu man mii di wax da ngay am lu lu diis loo xam ni nopp bu ko dégg warta nekk lantinoor pour di ko xelli nga dee ko sa mbokkum jullit mu ne ah diw de sama xarit la xaaral ma dee ko ko moom it kooka tamit am na xarit xanaa da ngaa fàtte lool moom it am na xarit xanaa da ngaa fàtte lool wax ñu noonu lay tourné ba dem yegg fa mu yegg mbokk yi lan moo tax ñun ñi askanoo ci manhaju salaf du nu wóor ci gàddu secret comme ne salafu saalih wóoroo woon ci gàddu secret waaye déedéet tey ma al asaf shadid fépp fi kulli jawaanib al xayaa ci biir néegu sëy yaag ca jëflante yaag ca nangam yaag wallahi yaa xii damay def ab bàkkaar sax tiit ñëw ci yow pour nga di ma nasiha ñëw ma pour nga dem siiwali ko waaye pour nga laaya biir ma après nga wëlbati ko siiwal ko mbaa xam nga ni wallahi kuy xawi sutura yàlla sa mbokkum julit yàlla dana xawi sa sutura fi dunia qabla al axira ngay gis ak say bët te xadis bu wér la yonte yàlla moo ko sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax buñ la déyee dara nga fas sa làmmeñ bi ba du mën a wax pour bu mu génn dem feneen abubakar siddiq keroog bi omar borom këru xafsa muy xunayf ibn xuzafa assahmi faatoo salaf saalix dafa bokkoon ci seeni doxalin ñoom bañ di xaar jigéen ji bañ di xaar góor ñëw ni ko dama laa bëgg kaay ma takk la wa illa boobu maanaam daal comme ñun ni ñuy doxalee waaye jigéen daana jug di wëri góor gu ragal yàlla ngir mu ànd ak moom jaamu yàlla paaya daan wëri góor ñu ragal yàlla ngir may leen seen doom yi loolu moom mutawaatir la ci biir sunanu salaf ci biir doxalinu salaf Abubakar bi borom këru doomam Omar bi borom këru fa doomam faatoo mu ni xaaral ma seeti Abubakar ndax dénk ko sama doom ja Xafsa Omar nee na ma dajeeg Abubakar ni ko man day damaa amagum mbébét dénk la sama doom jigéen jii di xafsa ngir nga jël ko soxna abar ni abakar ni ko waaw dégg naa li nga wax daal dem yoon ma toog ab diir abubakar waxul dara omar nee na maa ngi mere abubakar mere moo xam ne même bu dee li ma koy jox daa bëggut sax mënu maa wax bëgg ma rek mu jeex ma jàll feneen mu ne ma taseeg osman ni ko osman ma ne dama laa bëgg a dénk sama doom jii di xafsa Ousmane ni waa xaaral ma xalaat ci mu xalaat ci ay fan ñëw ni ma man daal boo ma ko mënee jéggal daal nga jéggal ma ko teguñ ci ay fan rek yonent bi daal takk Xafsa Abubakar jug sol daal la dem kër Omar ni ko Omar mu ni naam mu ni ko yow day amaan na xam naa ne wóor na ma ni yaa ngi am loo denc ci sa xol ci man mu ni ko xam yow koy xam nga ko sax ndax maa ngi daje di wax yow nga rek këj ko jaaral faalewu man boo ma faale woon sax mu neex ci man mu ni ko xam nga lu tax faalewu ma la yonent bi daf maa gisoon ci pet déey ma ni mi ngi labat xafsa te domaine boobu bëgguma caa wax benn xaraf ba sama làmmiñ di rëccale ma di la ko wax kon ma siiwal secret jaam allahu akbar kan moo ne ci kanamu abubakar ku abubakar di gën a wóolu ci omar ibn xatab laaj naa leen laaj boobu kan moo ne ci kanamu abubakar bu yonent bi jàllee ku abubakar di gën a wóolu ci omar ku seytaane ragal ba di ko daw xanaa bu dee boobu dañuy am lu ñuy tiit ci saagaa yi moom duñ ko tiit ci moom beneen bi ci des mooy masala mi moom ci la bokk parce que doomam la ñuy rabat waaye wax loo wuñ ma la ko du ma la ko wax mbokk yi lii mooy wóobu ci wàllu secret boo ñëwee ci sunu biir nag subhanal malikil aala bal sax nag day mbokk mi ak mbokk mee ñoom ñaar samay xarit lan ñu ngi waxtaane ay secret yuy dem seen biir man waxuma la sun ma ko yëgalu waaye su ma demee ba yëg ko feneen sax damay mer laaj naa leen lu tax may mer ñii lu tax ñu di ma ko nëbbu ah kay lu tee ba dum la ko nëbbu est ce que yonente bi lépp la daan waxtaan ak saxaaba yi déedéet am na yu bari daf ko def secrètement diw la koy wax ak diw ak diw ak diw diw du ko wax ñi ca des Omar ibn Xataab li muy baax baax baax boo tasewoon ak Xusayfa ibn Yamani ni ko Xusayfa yaa ko Omar ku gën da lay pes moom Xusayfa ndax fan la Xusayfa jaar bañ koy tëkkale ak Omar ibn Xataab waaw ban maqaama la Xusayfa am ba yent bi di ko dee turu naa feex yi te deewu ko Omar ibn Xataab ba Omar wëlbati ko ñëw di si booru Xusayfa ngir mu wax ko ko mbokk yi nanu ragal yàlla ci secret wallahi bari na ay sëy yu tas te fekk ci buntu bii la lii may wax nag léeg-léeg mën naa wax loo xam day yees ci nopp kenn ci yéen da ngeen dul ay doaat bu ngeen dul ay doaat nga xam ne lu bari da ngeen ko yëg ci mbir mi ni muy yëngoo da ngeen xam ne lii may wax li li li ci am sax dafa bari kon ab jullit dafa war a wóor ci gàddum secret gone yi saxaaba yi sax dañoo wóoroon ci gàddum secret yonente bi daa woo Abdullah ibn Abbas ni ko kaay ma yónni la yaayam ni ko kaay mu ñëw mu ne ko yow su xel yi foo daw jëm mu ne ko yonente bi ma yónni sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko lum la yónni mu ne ko ah yaay nga bëgg ma waxee li ma loolu loolu mu déey ma ko ma ne la ko wax allahu akbar fekk mbocc la woon mbocc xale bu ndaw ibn abbas yonente baa ngi toog ci biir mbooloo mi woo ma ñëw mu déey ma ko ba pare ma dina wax secret lu tax parce que gone yi dañoo yàgg a toog ci mag ñuy waxtaane lu mel noonu ban dégg ko yëg ni li ma déyanteeg yow ci nopp ci diggante nopp ak gémmiñ lay war a yem te sunu yes la war a ci gàttal tomb boo ci tudd nag dama ciy tudd lu gàtt waaye mën naa ci tudd ab lim ci dund salaf ñaareel bi ci wàllu wóor ci lan la dénk soo delloo ci usubul gaabo ibn al asir osman ibn affan mooy nettali nee na benn bis dama génn ci àll ba ca sama jur ga ci naaju tàng jër ma séen benn waay bu nekk ci ginnaaw ñaari giléem di daw di daw di daw ma wax sama surga bi ni ko waaw yërndul ma kee daw kum doon mu yërndu yërndu yërndu xamul kum doon ñu toog ba mu yàgg Ousmane nee na ma ne xaaral ma yërndul sama bopp Ousmane nee na naaj bi dafa tàng keroog ba bu doon ci saal bi ma ne bi mu génnee saal bi nee na bopp bi bi mu bi jant bi tàmpee ci bopp bi nee na daf maa lakk ba dama duggaat ndax naaj bi ni mu tàngee te waaja ba ma nga ca digg naaj wa nee na ci noonu ma taxaw di xaar rek kum doon nee na bi ma taxawee di ko xaar ba mu yàgg ma yërnu ndekete ko ko Omar ibn Xattaab la ma dikk ba ci moom ni ko yow de yàlla na yàlla yërëm la yow Omar foo jëm mu ne ko giléemi asaka ji daam ñaari giléem yoo xam ne dañoo tardé biñ leen di sàmmi ma xam ne su ma leen bàyyee ñu dem mën nañoo réer ma ne naa leen jiital bañ dem ca alal ja ndax maa ngi tiit bu ñu réeree ëllëg àllaaxira ma am ay jafe-jafe te la ma fay yàggal mooy looloon sàggan ba ñaari giléem yu réer Ousmane dafa jooy ni ko kaay kaay toog ci kër gi keppaar gi ñun ñu dem defal doxal ko Ousmane Ousmane rek Omar ni ko Ousmane ragalal yàlla nga dellu ci sa keppaar gee te nga bàyyi ma ma dem ndax ëllëg yowmal qiyaam bu saay bàkkaar diise dooma ko yonn xoolal wóor gi ñu amoon ci liñ leen dénk dañ laa dénk yaa jiite mbooloo bi yaa jiite jàkka ji yaa jiite étudiant yi yaa jiite élèves yi yaa jiite koñ ba yaa jiite nàngam jiite yépp ba gën a tuuti ba bëri gën a kawe est ce que yaa ngi sàmmonteeg la nga war a jiite est ce que yaa ngi xëy heure di wàcc heure est ce que yaa ngi sàmmonteeg soxla yi nit ñi est ce que yaa ngi oyofal sa bopp ci nit ñi ku la soxla amul audience na yomb na yomb na yomb yonent yàlla bi moo gën a foor ñëpp dafa yomb dëgg la mën ngaa wut audience nag waaye day dugg ci buntu organisé wu kese ndax bu mbir jaxasoo kat xamees na organisé waaye nag ah mbokk yi mbir yii day asalaf dañ ci doon tiit lool bi ñu koy wax tey mi ngi yomb ndax ñoo ngi ci àddina waaye bu ñu yeggee fa fa yom jëf yépp am danañ xam ne mbir yi mbir yu sérieux la yoo xam ne benn waruñ cee négocier rek nëpp nëpp ko mu jàll ñetteel bi wóor nag ci wàllu nit ñuy faleek nit ñuy follee maa sàmba mii daal moonu neex daal ndax gis nañ ko kii na active na rek nañ ko nangam fal déedéet abubakar siddiq dafa fal abu ubayda amir ibnu jarrah ni ko yow yaay jiite soldaar si demal ñu dem di xeexi abubakar da ba mu dañ dama yàgg mu ne waa man man li ma def seetlu naa ko man naka la fi Xaalid noo nekkee di général bu ñëpp xam may fal Abu Ubayda xam ngeen koy Abu Ubayda yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam xeet woo gis am na ku wóor sunu xeet moom ki ci gën a wóor mooy Abu Ubayda bu dee wóor doo ngay tax ñu tànn nit ki te expérience ak technique bi du ci bopp déglul bii Aboubacar daal di bind benn leetar ne leetar bii de mi ngi bàyyi ko ci Aboubacar. doomi abdullah ibne qoxaafa jëm ci abu ubayda amir ibne jarraax jàmmi yàlla yàlla nekk ci yow ginnaaw loolu folli naa la fal naa xaalid man bu doon mën a leetar bi ma ko liiree dama ne bu doon mën a nga fay nekk na noo xam nga sax boo ko gisee di jubluwuma ci lii laa laa parce que jamono bi dafa yàqu ba kenn gëmatut kenn kenn wóolutut kenn waaye abu ubayda xam na abubakar abubakar xam na abu ubayda explication yu gudd yi jëru ko boo gëmee baax na boo gëmut baax na leetar baa ngi nii yàlla jàmm yàlla nekk ci yow folli naa la fal naa xaalit pour ma dalal sa xel nag bala ngaa tiit folliwuma xaalit ngir gëm ni xaalit dalaa gën giñ naa ci yàlla man abubakar abu ubayda yaa ma gënal xaalit bu la doyee baax na bu la doyul baax na wasala allahu akbar bu doon mana bu leetar bi yegsee dama naan kii boo demee dañ ma ko añaanee est ce que du boo demee diw mii di xelal kee sax moo ko xelal ni ko nan ko folli est-ce que du diw de moo ko nangam est-ce que du diw moo ko jaar fekk déedéet te moo ne jamono soppeeku waat na ba Omar ibn Xattaab ñëw gis ni war na noo xolli kii fal kële lii wallahi ba muy am dafa fekk dafa amoon ci xoli ay góor yoo xam ne xol yoo laas la yore woon lam gëmoon mooy lu nekk suñu borom dana leen joxe xisaab bi Abubakar faatoo Omar ibn Xataab lu mu wax day damay folli Xaalid fal Abu Ubayda ndax ku yonent bi tànn kii moo gën a wóor man Abubakar man Omar kookaay sama gis-gis kooka laay allahu akbar mbokk yi xoolal ragal yàlla gi Xaalid def Xaalid dafa yeggoon ci nit ñi foo xam ni nit ñi dañ koo bëgg ba bu ñu nee guerre bi Xaalid ñëwul sax dañuy découragé su doon mën a ak sama ngëm yàlla bu doyati buy leetar bi follee Xaalid yegsee dama koy liir ah yéen mbooloo man Xaalid folli nañ ma kat wasalaam loolu su ko Xaalid defoon lu muy jur day découragé saxaaba yi ndax dañu gëmoon jàmbaarte xaalis waaye mbokk yi xool xool gaa yooyu ni ñu setee woon ak ni ñu ragalee woon yàlla xaalis bi lettre bi ñëwee mu liir ko Omar ni ko xaalis folli naa la fal Abu Ubay xaalis dafa jël fooy bi lem roof ci poosam woo Abu Ubay ba mu ñëw ci pet ni ko ah ay la yéwén kat folli nan ma fal na ma waaye bu ko kenn yëg ku dul man ak yow ndax gëm naa ni buñ yëgee ni folleeku naa mën nañoo découragé te suñ découragé échec day am ñu gañe ñu te sama jubluwaay nekkul maa jiiteem yaa jiite sama jubluwaay mooy nañ gañe wasalaam allahu akbar ñu denc fooy ba ba xeex bi yegg ñu doog a jàng leetar bi ah fi mu ne nii kat folli nañ xaalis fal nañ ab woobee la jéem na sa yee lañ dudul am nañ ko ñii fii lañ yeggoon waaye ay ndombay tànk daawul xëccu di ca jëm déedéet parce que amaana la yàlla na la koy laaj Omar ibn Xataab da doon jooy lan lay jooy maa ngi tiit ëllëg yàlla téye ma ni ma Omar lu tax defaroo woon tali bi ba mbaam mi fa kastalu woon keroog ba mu yéenoo bàyyi yiw fa kastalu loolu la muy wane mooy kenn ku ci nekk dafa gëm ni lii amaana la yàlla dana ko laaj subhanahu wa taala amaana ci wàllu jaay ak jënd imam Muhammad ibn Sirin imam ju mag la te ngeen xam ko mbokk yi xoolal gi ragal yàlla da doon jàngale ci commerce benn bis mu jënd diw ñoor bi mu jëndee ay butéeli diw ñoor ba dem ba jaay war a des mu xool gurtu yi ndekete jinax ju dee da caa tànn diglu lu baax jinax ju dee moo ca tànn ibni sirin toog di xool yëf yi bu doon noonu danga naan ah naa ko sotti sim bi rek sànni kenn du ko xam Muhammad ibn Sirin mu ni lii de su ma ko jëlee jaay ko nit ñi duñ ko xam waaye yàlla xam na ko dinaa daje te lii su ma ko jëlee delloo ko kama ko jaayoon su ko jëlee mën naa am ragal yàlla gi ne ci man ba may sédd amaana du ne ca moom mu jaay ko te su boobaa bu tooñeet maa sabab tooñ ji kon nooy def mu ne lu mu cher cher ay junni yu bari la ba loolu lu bari la parce que lii ma def tëj nañ ko ci kaso xam ngeen loolu du ndaw du ñaari junni du ñetti junni ay junni yu bari la mu jël diw ñoor gi wàqim pax ba mu xóot tuur ko léegi naa ñaan yàlla mu wërsëgalaat bu fekk diw ñoor gi bor la jënd ko bor la dañ ko ko lebal fay jot waa ji ñëw mu wax ko waa ji loolu doyu ko mu jël ibni sirin tëj ko kaso allahu akbar léegi xalqa bi tas na daara ji tas na ndax sëriñ bi dañ ko tëj kaso ngir lan ngir da doon sédd ak ragal yàlla te jéem a am am lu amaana xool man li ma gën a yéem mooy yàlla mi ko waroon a dimbale ndax mi ngi góorgóor ragal yàlla suñu borom daal di ko seetaan ca loolu loolu mooy wala nab lu wala faw yàlla nattoo ndax li ngay wax dëgg la wala déet suñu borom bàyyi ko boppam rek ñu tëj ko kaso kii garde buntu kaso bi dafa seetlu ibni sirin ñaari fan mu woo ko ba mu ñëw mu ne ko yow gis nga yow xam naa ni ku ragal yàlla nga guddi gu jot mën ngaa yollee ko dem fanaan ci sa njaboot soo xëyee nga ñëw ndax wóor na ma ne yow borom xam-xam nga doo wor bu doon ñu ne da ngay dem waa ji siggi xool ko mu ne ko bëgguma loolu mu ne ko lu tax bëgguma loolu mu ne ko yow dañ laa wóolu ci amaana moo tax ñu teg la ci buntu kaso bi kon su fekkee da ngaa def lu juur ak lan la defoon amaana ma ñëw di la ci dimbali kon maa yowee bokk bàkkaar allahu akbar ñu toog ay fan ay weer ñu tëj ko kaso ay fan rek assahabiyul jalil anas ibni malik faatu te ke anas bi muy faatu daa dénkaane woon ne ko ibni sirin jullee sang ko sang ko suul ana ibni sirin ma nga ca kaso keroog dañoo mujj dem ca kaso ba ñaan buur mu may leen ñu génne ko mu ñëw jullee si ko wallahi jaarul këram keroog dañ ne ko jaaral sa kër mu ne mukk ndax biñ may may jullee si ko xoolal ñoom ñu doon sànnee amaana jullee si moo taxoon ñu mayoo ma génn ci kaso bi mu dem jul sang ko sang ko jullee ko ñu suul ko ci armée ni mu teggee noonu dem duggaat biir kaso toog duggaat ci parce que defat lu bon kon amaana daf doon feeñ ci seen yëppi mbir Abu Hanifa da doon jaay fëgg jaay benn waaye bu ñuy wax Habs ibni Abdirahman moo doon ànd ak moom am benn yére boo xam ne dafa am ay bënn bënn abu xanifa ni xabs koo manti jaay yére bi nee ko bënn na barab sàngam bu bëggee jënd su bëggut bàyyi mu ni ko waaw doomu araba day fàtte xabs daal di fàtte ba jaay yére ya te waxul kam ko jaay ni ko daa bënn bi mu wàcc fii abu xanifa ni ko mbaa wax nga yu bënn yëpp mu ni ko fàtte naa ko abu xanifa ni ko kaay wax ma foo jaar ñu jaar fa pour wër waaj ñu jaar fa fu mu jaar jaay ñu wër wër wër wër ba sonn xamuñ kuñ ko jaay abu xanifa ni moom journée tey liñ liggéey lépp du ci lekk dara est ce que yére ba lépp lañ liñ am ci xaalis tey lépp ci yére ba la déedéet ala sabili misaal pour mu leer jaay nañ ki junni tey yére ba moom mënta seero paase ñaari junni abu xanifa mu ni comme xawma ban ñaari junni ci biir ñaari junni yi moom lañ jaayee yére yu fëq ya kon boole leen fukki junni yépp saraxe te wër naa waajo gisuma ko waaye man duma ko lekk est ce que amaana ji mbokk yi ñun am nañ ko ci lu ñuy lekk waxoon naa leen ay yoon ne imam ju mag ju ñuy wax sahlu bnu abdillahi tasturi nee na saa booy sàmmoonteeg wóor bay lekk lu lew énergie topp yàlla da nga koy fees dell bu la neexee nga topp yàlla bu la naqaree di nga topp yàlla doo xam sax lu lay tax a topp yàlla allahu akbar mbaa xam ngeen ni wér gi yaram doole force yaram ragal yàlla soo ko bëggee fexel ngay lekk lu lew imam ahmad ibn hanbal dafa yàgg toog ak doomam bu jigéen di ko wax cëy shafii cëy shafii di wax rek di wax ci shafii wax yu garaaw doom ji nee na man dama yàkkamti sax gis kuy shafii ndax man kii ñu may misaal kan la waroon ci àdduna ku ahmad fonk kooku ku rëy la nee na benn bis Shafii yi seet si leen fanaan si seen biir kër bi mu fanaan si seen biir kër doom ji jigéen ji mu ne xaaral comme am naa occasion ma suivre kuy Shafii mooy kat doom ji jigéen ñi ne fi ma njëkkee am déception rek mooy fi ñu ko taajalee reer nee na ni ma ko gisee muy lekk ma ne ah kii de du borom xam-xam ñu taajal la lekk nga lekk ba lekk bi jeex ñetti bool bi mel ni ku lekk lóob ah man daal am naa déception ci moom. xissa bu gudd la maa ko gàttal foofu li ma soxla foofu la nekk moo tax bi ñu xëyee suba su jigéen ji daal di koy nettali bàyyi ji bàyyi ji daal di laaj saafara yi ni ko waaw man ka sama doom ji xam naa li nga tibbal biig reer ni mu baree ak yaakaar naa ni dana def nga lekk ko lépp ah moom daa doon def ci xolam saafara yi ni ko lekk naa ba yëg ni suur naa waaye dama doon forcé forcé lu di lekk-lekk lu tax muy damaa xam ni kër Ahmad njël lu lew lan fay togg te kuy lekk lu lew da ngay mën a topp yàlla moo tax bëgg lekk lépp bala maa ñibbi subhaana almaliki al aala ndax ñoom gëmoon nañ ni amaana bu amee ci nit ki la muy jot mu lew loolu da koy yombalal ak dundam Omar ibn Abdul Aziz moom damay wax ni waxal ci amaana nag ba sa xol sedd ba waxtu wi jeex te doo pare soo bëggoon a lim ab lim ci amaana Omar ibn Abdul Aziz dama ne damay wax ba waxtu wi jeex benn laa cay jël rek keroog nañ koo fal ci bis bin ko fal mu am ay fan mu fal ay gaay ñu dem bi gaay yi demee benn bis kenn ci gaay yi ñëw di ko jox contrat bi ah ñun kat dëkk ba nii ñun kat wax wax ba wax a eggal mu ne ko waa Omar na ngeen def waay naka waa dëkk bi nag Omar daal di ëf daal di fay sondel waa ji ne ko waaw yow lu ne ci sondel ba nga koy fay mu ne ko bëgg a nuyoo ba tey li nga doon wax ak man jullit ñee ko moom te ñoo ma fal moo tax ñoom moom sondel bi moo tax ma bàyyi woon sondel bi muy tàkk ndax ñoom ñoo ma fal te li nga ma doon wax mooy contrat li ma la falee yow it waaw lu tax bi ma nee la na nga def nag gëj naa laa gis nga fay lam mu ni na nga def ak gëj naa laa gis sama digganteeg yow la moom moo sondel bi moom ma kon buñ ko waxtaanee ci leeru jàmm allahu akbar lii mooy lanuy tànn rek cag maandoom waaye jéggi na dayoo bunt bi nag li ma koy tënk romb tomb boobu mu tëju mooy mbokk yi sunu góorgóorluwaat bu baax ci sifa amaana lépp te duñu fay jël yëfi jaabur tooñ yi yëpp ay xeeti mbir la yoo xam ni ah wax dëgg yàlla nit ki amaana la ci moom te dana ko séddee ak la àttewoo ak borom subhanahu wa taala ànd ak nag ndax loolu sabab lay doon ci man mii nga xam ne dañ maa tànnoon wala boog tànn guñ ma sax lii nag dama koy benn entre parenthèse pour mu jariñ ñun ñëpp ndax day tax tiit ci loolu war naa tax yow imaamu jàkka ji nga di man kat folleeku na jeex na maa ngi dem sama yoon parce que mënu déedéet demeewut noonu nag ndax mbiram lislaam mi faw am loxo yu ko yore te ko yore nag góorgóorlu ci ragal yàlla di jiite julli ga ca di jiite réew ma di jiite nangam ca nañ ko ko jiiteloo tey sàmm ragal yàlla waaye ñi ko jiital di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala benn bo beneen bi ci def mooy nanu xam ni sunu biir ak ñàkk a wóor fës na ci ba ñi ci biti yëg nañ sunu ñàkk a wóor léegi am na benn mbokk moo nekk li benn paa doon wax ni moom ab liggéeyam mbokkum sunit rek la ci mës a wóolu waaye kam jëflanteel def na ko jëf joo xam ni wóolootut kenn te xoolal mbokk yi nit ñi ni ñuy foogee ci ñun mbaax damaa ñëw fii sàndaga ci koor bi di jënd sama yëf yëfaan defe naa balaa koor bi yaakaar naa ci fan yooyu la ndékki jot ndékki jot ma dem ci benn ndékkikaay comme fa la ma fekk ma toog fa di ndékki bi ma ndékkee ba dara desut lu dul fay ndaw si jóg daal di dem fekk dafa dugg ci biir kër gi bi mu ñëwee ma di ko tooñ ma ne ko yow daal yow bu ma dawoon ak sa xaalis bi mu siggi xool ma ni ma yéen xàmmee naa yéen du ngeen daw ak xaalisu jàmm wallahi mbokk yi lii nettaliwu ma ko abadan wallahi yàlla seede na ni nettaliwu ma ko ngir ni aw tagg da cee nekk waaye aw xas da cee nekk moo tax ma di ko nettali mu siggi xool ma ni ma yéen xàmmee naa leen du ngeen daw ak xaalisu jàmm ma ree bàyyi mu jàmm ma toog may xalaat ma ni xoolal nit ñi ñu ngi ñuy jiiñ lu amut ñun ñu ngi war yàlla ko benn parce que nit ñi li ñu wax loolu lan yaakaar mooy li am te ñaata ci ñun ñoo daw ak ifi jàmm wallahi maa ngi bañ gàcce gën ñoo dal nde mën naay nett di ñett yu teew ci sama xel yoo xam ne bu ci nekk lu ma leer la ci ay jëf yoo xam ne ñuy askanoo ci mën haju salaf ñoo ko def ak ñàkk wóor di ca feeñ li ma am yaqin mooy bu ma ko nettali woon ku ne ci yéen dana tax gémmiñam ndax xam naa mosu leen dégg loolu waaye jëru ko li am rek mooy ñu xam ne mbir maa ngi yàqu wóor a ngi dem kon melokaanu wóor soo gisee ma sonnee ci nii lii ma doon leeral sànq ab xutba la boo xam ni maanaam cosaan la ab xutba la boo xam ni àjjuma jiwee soo jëkko jiitu moom lañ doon xutba ci jumaa ji ñu dëkk bi unwaani raddul umma ila sifatil amaana delloo xeet wi ci melokaan wóoru ndax lii la ñu wax lañ yëg tey kon faw ñu góorgóorluwaat saytuwaat doxalin wi rawatina ci buntu wóoru wallahu alam ñaareelu tomb bi mooy assalaf wa tawqirul ilmi wal ulama lu tax ma tànn tomb bii muy salaf ak niñ ormaale woon xam-xam ak niñ ormaale woon borom xam-xam damay wax ni xol nag ci tomb bii ci lay xotteti ko ay mettit ak baamu la ma naan wax dinaa wax mbokk yi ma ni leen ñaari baat maa ngi koy faral di wax xam naa nag bu ci nekk nag ñi di ndaw ba mel ni man te dëgër ci ngëm wuuteeg man mën na leen a metti waaye nag jamono ci suñu kanam nee naa leen ndaw yii ma seen tey te ci seen biir laa bokk ñuy sàkku xam-xam li ma wir ci wóor ma mooy xam-xam bi ñuy sàkku du barkeel insha allah waxuma ci xëy ba nag da ngeen naan sunu doom yi ñee ngeen leen ndax ñoom dañoo judd fekk seen baay seen yaay nekk su di du loolu ngeen defaral de wax ñun dañoo màgg jaar ci ay jaar-jaar doog a ñëw ci sunna yéen ngeen ni sunu doom yi ñee na leen ndax dañoo judd fekk bàyyi yaay ci sunna dama ne man sunu doom yi ñeewuma leen ndax gëwuma ni danañ barkeel ndax seen yaay yi sëyuñu wax ji nag tontu baa nga ca kanam na dund fekk insha allah bu nu deltuwal gannaaw danañ gis lu ëpp sunuy sunuy jort ci ay déception yi ñu am ci bunt yi magi salaf de ñoom dañoo xamoon ne xam-xam sàkku ko jaamu yàlla la di ko nafar sàbbal yàlla la di ca gëstu di ca sonn yoolab jihaad la di ko jàngale sarax la di ko wasaare day gën a jegeloo yàlla ndax mooy lii directive yi joxe lu xaram ak lu dagan te mooy yoon wi ni coow nag dem ba àjjana te mooy dundalu xol nag ba du mën a réer ñu ormal xam-xam lool ormal ab borom xam-xam lool ba ormal gi jéggi dayo wuteeg li ngay gis tey mbokk yi xotti xorma ak ñàkk yar bu yeggee ci borom xam-xam boo xam ni wallahi sa baay ak sa askanu baay sa yaay ak sa askanu yaay mën na leen a jàngal nga joxoñ ko nga ni kii xamul dara daa war a jàngiwaat même bu fekkoon ne lu am la sax lu li ngay wax loo gëm la bu nu ko wax ñun demal nga wax ko ko moom moo taxit loo ci gis am na yenn xeeti toroxtaanga yoo xamante ne uqubatun fi dunia wala adabul axirati akbaru law kaanu yaalamun ab borom xam-xam yàppam tooke la yàppam posam la ku ko faw rek ñu ormal ak lu mu tuuti tuuti tuuti ci suñuy bët abi wail benn waaye dafa ñëw ni ko waaw yaag rabia ibne xosom ku mag mu ne ko bu dee ci ay at de maa ko mag waaye bu ñu waxul ci wàllu at nag mooma mag ndax mooma raw te borom xam-xam allahu akbar anas ibni ma ab abbas te saxaaba ya benn waaye dafa dikk ni ko yaag yonente bi ku mag mu ni maa koy njëkk a judd waaye mooma mag xoolal yooyu wax nit noo koy njëkk a juddoo mu ñu la mag maa koy njëkk a judd waaye mooma mag lu tax loolu bu dee ci wàllu at ngeen jàpp moom maa ko njëkk a tudd bu dee mag nag moo mag lan moo ko may mageel gi mooy xam-xam mbokk yi lan ngeen xam ci ab waay boo xam ne ñu ngi ko bindee ci ban buy rimbi rimbi muy def bàkkaar di nelaw di sooñ yàlla di sonn ah ñu woo waajoo xam ni ci leer lañ ko bindee du lekk du naan du xiif du mar du sonn du moy yàlla ndax xamu ko tey ci jaamu yàlla lay dëkk waa ji ak li muy doyadi doyadi ñu woo waa ji ak li muy am am solo ni ko sujootalal waa ji lu xew xam-xam wa id qulna lilmalaika isjudu li aadam wa allama aadama al asmaa kullaha baada tawfiqillah moo ko ko may mbokk yi xam-xam orma ji yàlla jox ñi ko ñi ko am orma ji ko sahaaba yi jox ji ko yonent bi joxoon nun day joxuñu ko suñuy boromi xam-xam moo tax insha allah li ñuy jàng du barkeel wallahi alazim du barkeel li nu xam li may wax nag du bu leen def ay xëy bi yàlla déedéet boo delloo ci kàgguy siyaar ak kàgguy salaf lin taalib ci sàkku xam-xam ak nu nuy sàkkoo xam-xam ba am lu barkeel ku ci mel ne al imam shafii ca yem ca doon wax ak ñeneen ak ñeneen ci nga xam ne ñun ni ñuy sàkkoo xam-xam barke du ko am parce que benn orma lu gën a tuuti ci orma amuñ ko ci suñuy borom xam-xam bu ma yëgoon ni borom xam-xam bi sax dafa juum mu wër adduna bi yépp ni daa juum samay pexe ak samay technique mooy nu ma fexee maatale door mu jàll pour nëbbal ko ayib yooyu parce que borom xam-xam la fu ñuy ormaalee ndongo lu mag ci biir ndongo yu mag yi kon borom xam-xam taxul di wax abu xaatim arrazi nee na ibn al madini borom xam-xam bu mag la woon ci xam-xamu xadis wala ilal moo tax imam ahmad ibn hanbal nee na du ma jaar ci turam te du ma nangu kuy jaar ci turam ci sama kanam allahu akbar su ma koy woo dama koy takniya bàyyab diw wala ma seet leneen lu ma ko wooy waaye turam muy du ma ci jaar parce que ñàkk teggin la imam abu xanifa nee na am naa benn sëriñ bu ñuy wax xamaad mu dëkk ci dëkk bi ma dëkk ci dëkk bi ma am te fanweeri ak musuma toog tàllal samay tànk mu jàkkaarloo buntu kër sëriñ xamaad ndax nee na man man abu xanifa damaa jàpp ne loolu ñàkk teggin la subhanallah imam ahmad ibn hanbal nee na toog naa fanweeri at yoo xam ni fu ma jullee ñaanal saafara ndax damaa gëm ni borom xam-xam lii xëydun min fayd wallahi boo duggoon ci mbindam salaf ci adabul ilm wa taallum adabul ulama subhanallah taral ajab al ujab dañoo yeggoon ci ormal xam-xam jëmmi xam-xam ormal ña ko yenu muy borom xam-xam ya orma joo xam ni jéggi na dayo amatul tey amatul tey maa xam nga ni am na ci salaf ñoo xam ne dañ daan wax dañ daan ñaan yàlla xam nga lu ñu ñaan yàlla yàlla bu fekkee sëriñ diw nar naa gàtt fan man day ma sama fan gàtt sax nga yokkal ko ko ci fanam moo ma gënal man ma dee ndax amaluma askanu njariñ moom mu dund ci jamono yi Abdullah ibn Omar la loolu tàmbali woon sama fan nga wàññi ko jox ko sëriñ diw ndax moom kat mi ngi amal umma bi njariñ yoo xam ne est-ce que yow mas ngaa julli benn guddi ñaanal kenn ci sëriñ si lay xamal est-ce que yow mas ngaa dégg benn ayib ci ab borom xam-xam même bu dee lañ ko waxal dëgg la lu dul mer nga ba futt nëpp nëppal ko jàll est-ce que yow àgg nga ci wormaal ab borom xam-xam orma ju mel ni ña salafu saalix yeggoon ci ormaal seeni borom xam-xam bal da nga ci gis ñoo xam ne orma ja fam yeggoon subhanallah kenn mënu ko mel tàmbale ko ci saxaaba ya ba ci taabiyoon yi su ma ci bëggoon wax dama ci wax lu gudd waaye nee naa tomb bu njëkk bi na ma ca yàggee du ma ci yàgg ci tomb yi ci des ndax boobaa gën a yitteel yi kon mbokk yi bu nu bëggee askanoo gi nii askanoo ci jikkoy salaf gën a wér faw ñu ormaal sunuy boromi xam-xam faw ñu wekk leen faw ñu jox leen cër faw nuy julli di leen ñaanal faw nuy gëm ni loolu ñuy def ak jaamu yàlla la ci ñoom ak jaamu yàlla ci ñun bu nu yàlla bindal aw tiyaaba li leen nga dégg ay wax yoo xam ni comme li ma waxoon ci qadiya bi ma njëkk a jàll laay waxaat rek bu ñee la ñi ngi koy wax tey ci ay boromi xam-xam nga wecc ko waaye nag yàlla nag moom aadatullahi fi hatki astaari muntaqis al ulamai maaluma fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun doxalinu yàlla ci rëq ndiggal ñii doyadal ay boromi xam-xam ci kaw suuf loolu moom lu ñu xam la ku mel di laajal ñi xam am na benn borom sax dafa taalib benn téere tuddee ko luxumul ulama i masmuuma yàpp borom xam-xam yi day daa am poson booy lekk seetal leneen te nga bàyyi ko ndax boo ko lekkee dee ànd ak li yàqute gi bari bari wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu lu ñu man ci ormal ci masayix yi nga xam ni moom la ñu xam tekkiwul mooy ki may jàngal ak ki ma jàngalul déedéet ma dama borom xam-xam la ma nga ca basra ma nga ca kuufa ma ñoom dañ doon ormaal borom xam-xam yépp bal da nga daan gis koo xam ni da daan mag mag diw fop mag ko loo jug dem di ko ziyaare ci lu bari daanañ ko wax imam Shafii yow Shafii Ahmad yaa ko mag téeméeri junni yoon bis bu ne yaay dem këram mu ni waaw waaw parce que mu daf maa jàppee borom xam-xam ma it ma jàpp ni moo ma raw wal fadlu yaudu ila ahmad moo tax may dem di ko seeti kon mbir mi du mbirum maa ko njëkk ci sunna moo ma njëkk ci sunna maa ko mag moo mag xamal naa ko ayib sàngam waaw damay laaj billahi alayka su fekkente ni cheikh diw wala oustaz diw wala sëriñ diw mi nga déggal ab ayib ayib joojaa tax nga bañ kaa ormaal bu dee loolu la te na wér sax waaw nooy defar borom xam-xami salaf ya nga xam ni kenn ku ci nekk am na ca fikk lu rëy imaamu zahabi ca siyar day bu ci am solo mu ni bu fekkee da ngaa bëgg sëriñ boo xam ne doo ko xamal benn sikk muy doo am sëriñ ci kaw suuf ndax koo gis am nay sikk soo bëggee noppal nooy def mu ni da ngay jël li nga ko xamal ci mbaax mbaax teg ci côté jël li nga ko xamal ci safaan teg ci côté su boobaa da ngay gis li nga ko xamal ci safaan tuuti la mu ni jël ko daal di koy muuree ay mbaax mbaaxam mu seey nga romb jàll tombam ñetteel bi assalaf wa riayatu xaqil ixwaan salaf ak sàmmonteeg aqi suñu biir ñun mbokk yi mbaa xam nga ni mbokk yi imam xasanul basri day wax ni jullit daal moo am bénéfice ñu ne ko lu tax mu ni mënta dund sans ay mbokki jullitam ñu ne ko lu tax mu ni ndax da ngay wàññeeku saa boo nekkee ci say mbokki deret waaye di dolleeku saa boo nekkee ci sa mbokki suñu ji waaye tey jii tey jii daanaka damay wax ni rek damay bañ a itlaaq bunt boo xam ni yeyow ma itlaaq ndax borom xam-xam yaa ko yeyoo te bokkuma ca waaye fi mu ne dafa mel ni ñu ngi bëgg yegg ca jamono jañ doon wax naan borom xam-xam yi daan tëree ay bunt nan baabu al uzlatu wala baabu istihbaab al uzla inda fasaadi nnaas dinañ toll jamono boo xam ni beru bañ a jaxasoo kenn dund la nga xam te gëm ko dana dagan man de ñemewumaa wax yegg nañ ca ndax du ma borom xam duma wax kenn nit def ko ndax xam na ni boo ko defee di nga ci jëlee ay lor waaye li ma tiital mooy dama tiit ndax yegguñ ca jamono jooja man loolu laay wax jamono joo xam ne daanaka jonjonteeg sa bopp ak sa njaboot moo lay gënal jonjonteeg ña nga xam ni ñoom ñooy askanoo ci mën a xaj lu tax ñoo xam ni saa boo dajeeg ñoom bala nga ñibbi da ngay chargé ba fees ñi batterie ba fees ñoo xam ni saa buñ la ziar see mbaa nga ziar si leen booy ñibbi indaale sëri ci booy ñibbi da nga yóbbu lu bari ñoo xam ni boo jëflanteeg ñoom da nga yaakaar ni saxaaba yaa dekki woon loolu dafa xewi tey bal kay suñuy jataay jataay kasaaw kasaaw la jataay werante diwa wax lii diwa wax lee masala mi cheikh diw dafa juum si waaye suyux yëpp a juum laa wax ñëpp a juum amul benn cheikh booy xool ci àddina lu dul am na njuum te buñ koy bàyyil kullun yuxadu min qawli wa yurad illa saahiba hada alqabr muhammad ibn abdillah amul koo xam ni boo toppoon ay bagaasam lu dul am ni ah yii nag sëñ bi nag wax dëgg yàlla jàmbaar nga la waaye lii séye fi bopp damay wax ni loolu lu baax la te yàlla ni mu ko defee ni la baaxee ndax faw buñ naree dem ba jàpp ni kii kët maqaamam daa ëpp maqaam doomu aadama ab fakkastaloom ñëw ñu xam ne ah kii fakkastalo kat nag wax dëgg yàlla doomu aadama rek kon mbokk yi faw ñu sàmmonte àq yi dox suñuy diggante yunus ibni abdil aala te li may wax mi ngi ci benn téere boo xam ni mi ngi tudd wa nasaihul imam shafii boo ca delloo ndax dañ caa dajale waxi shafii yu xereñ yam doon wax yunus ibni abdil ala nee na damaa toog ak shafii mu ni ma jàngal benn bis mu ni ma xarit yombul yunus boo amee koy jëflantil nga jékki-jékki dégg safaan ci moom dégg safaan ci moom mu ni bul ko mere bul dal ci kawam bul wax lu bon bàyyil ba dajeeg moom nga laaj ko te boo koy laaj bul ko wax sax la nga dégg lépp dégg naa ñu ne yaa wax na dégg naa déedéet nee ko ah man de fan yii am na lu ma dégg junj ko ay isaara yoo xam ne bu dee wax ji dëgg la moom junj yee dana ca xam bu fekkee daa wet nee ko anta asdaqu wa abra'u wala tazidanna ala dalika shay'an su dee nee nga ko yaa wax lii wala yaa def mu ni waxuma ko defuma ko nee na nee ko yow laay gëm ndax yaay sama xarit te xam naa ni dooma fen lim ca teg ka am solo lu mu ca teg mooy dani bul jël ay chaq di ca sukkandiku di dàq yaqin yaqin mooy kii xam naa ni ku baax la ñu ngi ànd muy sama xarit chaq mooy liñ ma nettali mu ni sànnil chaq te jël yaqin ak am solo waaye nag laaba xol mooy tax ñuy xam njëriñ yi ballu ci alquran ak sunna ak waxi magi salaam bu dul loolu day romb jàll duñ ci jëriñ nee na su fekkente ni moom nee na moo ko def wala moo ko wax kat la gën a jaadu mooy nga jàppal ko ngant ndax yàlla nee na subhanahu wa taala ah fa man afa wajzaw sayet sayet misla waaye fa man afa wa aslah fa ajru ala allah baal ko soo demee ba yëg ni mënoo koo baal fàttaliku li nga ko xamal ci ay mbaax mbaax nga jël ko jéem koo muuree loolu nga ko xamal ci safa ndax dina ko mën a muuram déet mu ne laa sakk dina ko mën a muur ndax lee mbooloo la lii benn la est-ce que mbokk yi ñu ngi koy jëflante nii sa digganteeg ñu bari yàqu na ngir moo wax jiw moo nanga benn bàkkaar bu mu def benn bàkkaar bu mu def semaine ba li passé maa ngi koy wax mbokk yi ci dars bu ñu doon def xayaat saxaaba ci dundu Zubayr ibn al-Awwam ma ñi leen bokk na ci li yàq daaw bi tey mooy ma ma fa ma Fatim mii wala diw mii muy jigéen ji def na bàkkaar ba wala ayaatu billah jaalo dikkal ko ci benn ñu ngi koy xas ñu ñu ngi jëw ci moom di bàkkaar ci moom wëlbati ko dinaa ko nag da ngaa war a mureeku yaa ko yow bàkkaarab na nga mureeku yow yaa koy gàddu yow yow yaa ko mooloo di ko mureeku loo day yàq der daaw bi na mureeku def na bàkkaar ndax am na saxaaba bu mu defoon bàkkaar yonent bi ni ko mureeku ah yow yàlla mooy santaane ci alxuraanam ju tedd ci yow ngay da ngaa bëgg a sàmm sunna moo tax dafay ngay dindi lam santaane yow yaa ko mureeku di ko mureeku loo te it bul fàtte ni kat nag bàkkaaram bii mu def nag mën naa dem ba ca yàlla baaxle fa de ndax dama koy baaxle mooy yaa koy yóbbee ah yow man ak yow buñ daje yow di diw moom de moo sàggan malaaka bi ne maa ngi lay bindal parce que yaa ngi koy jëw kee ni moom de xamoon na ko bétti moom ndax benn bis mas naa koo romb ci koñu école mu taxaw ak diw malaaka bi bind yaa ngi koy dolli ay ci yàlla keneen ni kii dañ ko waroon jàpp futti dóor malaaka mi bind waaw mbokk yi lam def di benn bàkkaar ci ron keppaaru kani man maay gafuur maay rahim ndax bu fekkee bàkkaar ba teew na yi ko malaaka yi jot a bindal ndax mbokk yee ko ko doon jëwee ñu dajaleel ko ko mbaa kooka du baax rek ma yaakaar naa ko lool dama ni bari waa ñu def bàkkaar ba rëcc dees na leen ñee lu tax ndax kat mbokk yi jëw nañ leen lu toll lañ def moo tax menn magum salax day wax ci seeru alam alam ni wax ju am solo benn waaye daa toog na xajjaaj dafa bon rey na diw def na lii def na laa tararara ba yeggal mu ne ko yaa xi ragalal yàlla téeméeri bàkkaar yi xajjaaj def gis nga sa benn bàkkaar bii nga jëw xajjaaj tey bu la ko yàlla dee xisaab dina diis ci yow lu toll ni téeméeri bàkkaar yi xajjaaj ca xajjaaj doo borom xam-xam yow léeraloo boo tolloon ci buntu leeral wala xam-xam waaye yow waxtaan a neex rek ngay wax loolu amul solo seetal la am solo nga wax ci kon mbokk yi faw buntu boobu ñuy sàmmalante dafa njaal ña ngi koy caw kenn ku nekk naan dóore ba bëgg a dee kii dafa nangam yonte bi ne eh du ngeen ragal yàlla laa tuwainu cheytaana ala axikum yéen yéen a ngi dimbale cheytaane seen mbokkum julli cheytaane mën na ko def bàkkaar ngeen wëlbati ko di ko yee jëkk ko kël déedéet ndax est ce que nee nga yow da ngay jaay bëgg mbaax sa mbokk mi nga dégg ni mi ngi commencé wàññeeku ci sunna ndax mas ngaa julli guddi ñaanal nga ni ma déedéet moom kay déedéet nga may wax da nga naa ma déedéet na mas ngaa jooyal yàlla ñaan yàlla di gindiwaat ko ndax bëgg yéene nga ko sunna tontu bi mooy déedéet ndax wóor na ma ni déedéet lay doon ndax jug nga sol sa dal dem nasiha ko tontu bi mooy déedéet xam nga ni oustaz diw moo ko doon jàngal kon war naa am jeexintal ci moom est ce que mas ngaa dem ci oustaz diw ni ko ah sa ndongo bi na nga tee ngaa jug ñu dem ay jéego est ce que mas ngaa dajale ñetti mbokk ñu ànd maa ngi fàttaliku bi may nekk fii ci géejawaay am na mel ni mbokk mu lu mel nii ma sa dal nu ngi ñaanal kooka yàlla subhanahu wa taala mu gindi ko ba tey xëy na ma nga ca lam nekk donte tane na ba mu defee yem def mbokk yi topp ci di wax tarararararararararara man bokk naa ca ñu jóg dem ba ziyaare ji ko laahi bi tey ku ma ko gis danaa ko nuyu te duma ko daw benn bis dafa ñëw sama kër ni ma yow ak diw mu tuddal ma keneen mu ni man sama relation bu mbokk yépp coupé naa ko ba mu def sama diggante ak yow ak sama diggante ak diw bi ma ko laajee lu tax xam nga lu tax mu ni man yéen juru leen ma jëndu leen moomu leen ma gëm leen ma bëgg àjjal kon su ma juumee la jaatu mooy ngeen ñëw laayal biir ma waaye du ngeen dem ci àdd bi dama kaw ci kawte lu neex waaye waxal maa maa tey la wax maa tey lu ma neex laay def wallahi yaa xi kii ñun ñoo bokk nañ ci ñi ko tooñ parce que kii ñëg nag ba bëggatula dellu si waat ba mi ngi ñuy taxé lu tax parce que juróo ko jëndoo ko moomoo ko gënoo ko bëgg àjjana àjjana moom la ko yàllay fay kon gis nga gisin ba muy gisee lu mu ca teg maa tey lu ma neex laay def déedéet warta tey warta def lu ko neex waaye ñun ñoo ko yóbbee aanna cheytaan ala axir ñun ñoo dimbale cheytaan sunu bokkum jullit waaye contraire salaf ci seen i jikko ñoom kon yaxya ibne moaz day wax ni bisa sadiqu taxtaaju an taqula lahu uzkurni fi duaik wa anta taichu maahu bilmudarat aw taxtaaju an taatadira ilayhi nee na xarit yi léegi xarit yépp a bon xaritoo da daan yegg foo xam ne du jar sax yaaxi comme ñuy tàqale ko ma ne yaaxi bu leen ma fàtte ci ñaan waay mu ne xarit bi gën a bon ci xarit mooy xarit boo xam bu ngeen tàqale nga nekk bul ma fàtte ci ñaan ndax moom naka lay wane ni xarit bi dëgg la ba nag mu lay fàtte kon lim lay wax jërul woon mu la koy wax parce que yow doo ko fàtte est ce que dégg ngeen wax ci maanaam xaritoo gi war a am ànd uxuwa gi war a am suñu biir daa war a yegg foo xam ne même bu ma soxlaa duwaa ci yow sax jërul ma la koy wax lu tax ndax dama lay fat wala insaanu la yansa nafsa xanaa loo mën a fàtte fàtte doo fàtte sa bopp te kii mooy yow yaay moom kon doo fàtte sa bopp kon xarit bi nga xam ne aajo woon na nga naa ko bu ma fàtte kooku xarit bu bon la ndax waruloo woon a fàtte ba nga koy fàtte beneen bi ci def nee na xarit boo xam ne da ngeen di raayante ay ndikk nee na kooku du xarit imam ju mag ju ñuy wax Fath al-Mawsili benn bis daa ñëw ci benn kër xaritam bu ñuy wax ay sat tammaar déglu leen lii nga xam ni moom amatut moom bii moom amatut yi ma wax yépp sax am na yu ci benn bii moom amatut fatxul mawsilin damaa ñëw sama kër xarit bu ñuy wax ay sat tammaar ma ñëw laaj mbindaanam bu jigéen bi ni ko ana Aïssa mu ne ma daa génn ma ne ko waxane wi muy def xaalisam du fi la ko bàyyi mu ne waaw ma ne ko ubbil ma ko dama caa soxla ñaari dërëm ndaw si dem ubbil ko ko mu jël ci ñaari dërëm dugal ci poosam dem yoon ki day sàccam sàccut sàccut de parce que nëbbatuwul kuy sàcc day nëbbatuwul kii nëbbatuwul def na ne muy def xam na ne kii dina ko yëg waaye bu ko seen xaritoo daa yegg foo xam ni ku ne may nga sa morom loola ci sa bopp aysa sammaar yëg ci jaam bi ni ko sa xarit bu ñëw fatx al mawsili ñëw na fi tey laaj ma sa caabi waxande ma jox ko ko mu jël ci ñaar dërëm dem mu ni ko billahi bu dee li nga wax dëgg la kontaan naa ci ba tey ma goreel la mu dem ubbi waxande wa wàññi mu manqué ñaar dërëm mu ni gëmm woon ni sunu ux wa yegg na foo xam ni saa mbokk ñeme naa ñëw laal saa kalpe jël ca yaakaar woon ux wa yegg comme yegg na fa nag kontaan naa demal goreel naa la yow yow mi ma ko nettali rek goreel naa la yow kan ci ñun moo am sañ-sañ ci alalu moroom ah sa lii sax bala ma kaa laal dama laa àbb dëgg la loola jaadu sax waaye uxuwa gi war naa yegg foo xam ne li sunu borom ni nu sunu borom tappalee noonu leen war a tappaloo wala talmisu mu ni anfusakum bul xas sa bopp parce que nit mën ta xas boppam kon keneen ngay xas mu ne la ki ngay xas mooy yow gis na kon benn waxkatu arab dafa wax wax ju wax ju wax ju reelu mu tëgg ko ci ay bayit waaye wax ju wax ju jàngalewu la bayit yi ma bañ koo jaar ci arab waaye ci olof daal ne dama am benn xarit xarit bi ñëw daal ni koom-koom salaamaaleykum ne na ma génn ni kookan la mu ne man la sa xarit diw ma ne ko cim yow kay doo sama xarit su fekkee dem nga bay teqale sa diggante ak man ak yow ma ma ne laaj yow la kan nga naa ma man la sa xarit diw du ma la ubbil tey jóge fi xarit ba dem ba ci ëllëg sa mu dellu si waat mu dal ni kon kon salaamaaleykum mu ne ko kookan la mu ne ko ndax yaakaar nga ne am na ku nekk ci bunt bi ku dul yow muy wax mu daal di koy ubbil katafa ko ne ko waaw kay xaritoo gaa ngi doog a mat allahu akbar lii daa booy katub arab ma ko doon wax mu ne diggante ma xaritam nii lañ doon def ndax am nga koo yaakaar ne moo nekk ci buntu bi te kat xarit ba ñëwoon moo ñëwaat waaye comme jàngal nañ ko mu bëgg wane jàngale gi mokk na ndax am nga keneen ku ne ci buntu bi ku dut yow mii tijji maanaam da ko bëgg yow mii tijji yaay tijjilaate yow la ñuy tijjil yaay tijji tijjil sa bopp maa yow yaay man mu ne ko yegg si fii la ëpp ko war a yegg tomb bi ci mucc wala la ñu gàttal incha allah ak mujjal ko kon mooy asalaf wa birrul walidayn salaf ak jikko rafetal jëme ci seeni wayjur damay wax ni inna birra alwalidayni la min akbari aladillati ala suluki arrajuli manhaj salaf min nahiyat alaxlaq rafetal jëme ci sa ñaari wayjur moom bir na ma ni ci tegtal yi gën a fës yi wane ne kii kat moom askano gi muy askano ci manhaju salaf wér na doomu aadama mbokk yi fu muusoon ba def ay effort ba xam way juram mooy kan dana muus ba def effort ba fay ko àq jëm ko amee ko naxam ëmb nampal boot coono ci bëccëg naaj wu tàng wi ngir wut rek loo xam ne moom la njaboot gi dundee ahin ah am na koo xam ne tey muskilaam mooy daa bëggoon way juram dekkiwaat am na koo xam ne way juram dafa génn àddina bi mu déggee njàngale yi ndeysaan mu jooy li ko jooyloo lan la mooy bu démb doon tey ba sama yaay dekkiwaat wala sama baay dekkiwaat ah fekk su ma yëgoon wees na kon lii sa sens la yow mi nga xam ni sa wayjur faatoogut yaa ngi dund ak moom mbaa xam ngeen li ñu tuddee xuququl walidayn muy dëng ay wayjur nun ñi askanoo ci ak salafiya ci ñi ci man lan bokk fi mu ne nga ne ma lu tax ma ne la bi xujjati yaa nekk ci dëgg sa baay nekk ci caaxaan paa bi ci bidaa la nekk paa bi ci nangam la nekk ah yow qaida ahlu sunna ba nga xam ni moom mooy rahma ar rahma bil xalq maarifatul xaq wa rahma bil xalq kon amatul ahlu sunna wal jamaa daa bokk seeni principe doxalin mooy da ngay xam dëgg ba noppi yërëm ñi ci nekkul yow yow yow sa yaay yërëmoo ko da nga koo sib sa bàyyi yéremoo ko da nga koo sib li benn daa yi di wax ni daa yi daawakat bi day mel ni ab tëgg gis nga man su ma romboon fii ab or ci ay dem àll dama naan ah fii daal sant na du ma ko laal waaye dëgg bi nga xam ne xam na luy or bu ñëw danaan ca bax loxo ba ca biir génne ko pomp ko paree raxasu parce que xam na luy valeur or noonu nga war a mel ci yërëm nit te koy yërëm sa way juru ci jiitu di daw sa way jur di daw sa way jur ba sa way jur feebar tëdd nekk ci sukuraat nga lànk ni doo ko seeti bi xujjate daa leen bàkkaar sàng li may wax lu am la de li gën a bon bokk na ci bàkkaar yi gën a bon te mën a gàttal saw fan mooy dag ak dog ak mbokk dama ne yonent bi da doon jokk ay mbokkam bay jokki mbokk yéefëram parce que mbokk mbokk la lan féq nga xam ne du côté diine mën nañ koo def mu di bi yéefër fa kay faka kii di julli aussi nanu bàyyi du ma ko tuddee tar nanu bàyyi tar tarlu gi ñuy def gis nga boo bëggee gis ku tar dëgg da ngay ubbi safaxaa bi nga xool saxaaba yee ñoo ñaañu tar ndax booy jaay tar tarlu fii nga taree am na beneen tomb boo xamante ni yaa ci gën a baax ñëpp kon nanu bàyyi bunt yooyu sa wayjur sa wayjur la déglul ma aaya ji wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ban bàkkaar ngeen ma mën a wax bu ngeen xam bu gën a rëy bokkaale yàlla wax leen wax xamu leen ko bokkaale gën a rëy jëlal bokkaale sunu war a mu ni même say wayjur sunu nekkoon ci bàkkaar bi gën a mag muy bokkaale yàlla sunu la ca wooyee bañal waaye bañ gën a dutee wa saaxibuhuma fi dunia maarufan lin féq muy mbirum àddina nan ko rafetal du tee bu tabaski jotee ma jëndal ko xar parce que loolu dañ koo siq ab mubtadee la moo tax du ma ko jëndal xaram tabaski te nga war koo jënd te man koo jënd te moom mënu ko li ngay def amu ci benn tegtal doo ci am tiyaaba insha allah beneen bi ci des mooy ah daa bëgg a def damay nag man day jàpp naa ni bu fekkente ni jàpp nga ni système bi boo ci jaaree mën naa jariñ sax mën nga faa jaare am na koo xam ne way juram day dem foo xam ne ci ay bidaa la mu àbb ko otoom man damaa bokk ci ñu ko encouragé mu abal ko mu dem xam ngeen lu tax ma def lool digganteem ak way juram dafa xajamoon xajam goo xam ni dafa yeggoon ci mel nit lu kenn mënta tudd jamono jooju mi ngi tombé net yàlla mi ngi def tawfiq ñi ngi jokkaloo ndax bëgg la kii dëgër na ci sunnaam kii dëgër na ca la nekk waaye yàlla mi ngi def tawfiq ba jubóo mi ngi am ndànk par ndànk ma gis ni bunt bii boo ko yàqee li ngay daw fii da nga am lu ko gën a rëy saa bu munkar dajee ankar minhu ñëw liñ naan lu bon ak lu gën a bon buñ dajee seetal la gën a bon nga bàyyi ko jël la bon ma ne ko abal ko sa oto mu dem du nekk luy wéy de waaye ci circonstance yi ñu toll moo tax faw tamit nga xam fiqhu daawa ak mbir mi fi mu toll lu mu laaj rafetal tamit jëme ci say wayjur lu dul min gayri ma marra wala marratayn wala salaat marra da ngay dégg wayjur wuy moolu doomam te yow mi xam biñ la nettalee histoire bi xam nga ni wayjur doom jaa cay gaañu parce que lii du mbirum diine ku dem ba mën a tiim sa doom ku dem ba mën a wax sa doom bu ma dee yàlla boo ma tiim te la ngeen jëte du masalam ay diine ay sunna nangam de ay mbir yu ñàkk solo nga gis kuy askanoo ci mën a yu salaf mën a yëkkati jabaram gënale ko ci yaayam te lii lu am la yi ngay dégg ñuy wax ni mooy dëngee sa ñaari way jur ñu koy def te nee na dañuy askan ci mën a ju salaf dëgg la kat ñu ngi tooñ asalaf kon faw ñu xam ni way jur moom ci boppam doxalinu salaf ci wàllu jikko dañ koo jox ci orma loo xam ni yàlla rek xam nu toll aïcha radiallahu anha nee na yonent bi saa sallam nee na dafa tëdd ba guddi ci ay nelaw te xam ngeen gént ak yonent dëgg la yonent bi nee na ma dégg benn waay buy jàng alquran ci biir àjjana ma dégg benn waay buy jàng alquran ci biir àjjana ma ni waaw kii de daa mel ne xàmmee naa baatam kookan la ñu ne ko kooku de xaarisata bnu noomaan la mu ne xaarisa taw ñu ne ko waaw lu xew mu ni moom day ku fonkoon yaayam la moo tax njàng bu alquran ca biir àjjana la ko yàlla fayee xadis bi min saxi muslim moo tax alimamu zahabi ci siiru alamin nubala mu ni waa jii de bokk na ci ñi teewee badar ak la ca gannaaw badar dëgg la soloolu xadis yu bari waaye ku amoon diina la te ragal yàlla te it nag kaana barran bi ummi da doon baaxee yaayam di rafetal jëme ci way juróom aïcha moo tax mu ni am na ñaari gaay yoo xam ni ñoom laa gën a xam ci ñi gën a fonk seen yaay ci saxaaba yonent bi saa sallam kenn ki mooy osman kenn ki mooy ki ma tudd sànq mooy xaarita osman moom boo ko laajoon sa xar kanamu yaay nu mu mel danaa xaw ma ko allahu akbar osman boo ne ko sa yaay xar kanamu yaay nu mu mel danaa xaw ma ko ndax nee na keroog ba ma tuubee dugg ci lislaam bañ wax ma lan la yaay am àq ci yow keroog laa rus ba rus ci gi xool sama yaay loolu nag jombul ci ku mel ne osman kuy rus bay rus a xool sa awray bopp man nga loolu waaye nag ku leen di toppandoo it man lu ko jege amma xaarisa dafa jaayante woo ak yaayam ni ko dimbali ma ngir yàlla bu lekk ak sa loxo del baal ma di la sexal bis bu ne bu yaay ji lekk moo koy sexal noonu lañ meloon ak seeni way jur tamit mbaa xam ngeen ni mbokk yi saxaaba yonent bi ñoom ñëpp dañ doon wër benn waaye bu dul ab saxaaba ngir bëgg mu ñaanal leen ndax kooka daa am ñaanu way jur xanaa loolu bariwul lu ngeen koy dégg saxaaba yonent bi dañ doon wër ci àddina bi ñuy dund ñoom bi ñuy dund saxaaba yi dañ doon wër ci àddina bi benn waay bu ñuy wax Uways al-Qarani dañ ko doon wër ku ne di laajte fan la nekk ndax ku ne daa bëgg boo ko gisee mu ñaanal la ndax kooka daa am ñaanu way jur soo demee ci saxee muslim yontu yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ñi nar a gën ci taabiuun yi benn waay bu ñuy wax uways alqarani nee na moom day ku fonk way juram la bokk na ci ay mandargaam bu ngeen ko gisee bu ngeen yëkkatee mbubb mi daa am benn genre tut fii mel ni lu xaw a xees daa feebaroon mu wér yent yàlla mu leen ku ko gis bu yeboo nga tàllal ko sa loxo mu ñaanal la jéggalul la yàlla allahu akbar te kii du saxaaba xam nga rek loo ko tara nekk saxaaba toppatoo yaayam dund naa ak yonent bi dégg na yonent bi waaye nee na bëggumaa bàyyi sama yaay ñaari guddi looloo ko tey nekk saxaaba ndax bàyyi woon yaayam dana ñëw fekk si yonent bi gis ko ñi la ñu tuddal muxadara mu woon mooy ñi nga xam ne fekkee nañ yonent bi dund ak moom nekk ay julit waaye nag jotuñoo gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Omar ibn al-Khattab mbooloo mu musa ñëw jóge ko te Yaman daan yéen ndax Uways al-Qarni ci yéen la bokk gaa yi di ko déedéet ba mbooloo ma ñëw Uways ne ca Omar dafa sukk ci kanamam allahu akbar Omar ak sahabiyul jalil Uways xam na ne Omar ko gën fu daal yoo Omar sax ko gën Omar sukk ci kanamam ni ko ñaanal ma ñaanal ma yonent bi daf ñoo dénkoon buñ dajeeg waa ju mel ni yow nga ñaanal ñu ndax yow da ngaa am ngërëmal way jur mbokk yi ndeke am ngërëmal way jur lu am solo Omar daal di jël aw fooy ni ko boo bëggee léegi ma bindal la benn lettre boo demee foo jëm mu ni ko Kuufa mu ni ko ma bindal la benn lettre sama gouverneur moo fa nekk loo bëgg mu defal la mu ni ko ma dem ca àll ba kenn du ma xam may dundeem ñax moo ma gënal li nga ma bëggal baal ma ñaanal la nga dem fekk Omar tàllal mu ñaanal ko mu dem ñaan lan moo ko may ngërëmal way jël benn waay bu ñuy wax Abdullah ibn Awn yaayam dani ko Abdallah ni labbayka daal di yuuxu bi mu paree daal di toog di jooy bi yaay ji waxee ba pare mu ne mu toog di jooy ñu ni ko looy jooy mu ni sama yaay daa wax ak man sama baat gën a foor baatam mu jooy ba xolam sedd mu jóg fekk ñaari jaam yu mu amoon ci biir kër gi mu ni yéen dem leen goreel naa leen parce que tey damaa tooñ sama yaay imam raja ibnu xaywa wala raja ibnu surayx bokk na ci aimma yu mag yi ci xam-xamu xadis xoolal ñoom ni ñu fonkee woon seen yaay kenn ci ñun bu toogoon fii di wax comme man bu ko yaayam ne kaay danaan ko xaaral ma àggale danaan toog di jàngale xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xaywa ibni surayx yaayam ni ko xaywa mu ne naam may nga ginaar yi ñu lekk mu ne ko déedéet mu ne ko jugal nga dem may ginaar yi gaaw léegi gëdd ko mu bàyyi fa xalqa baag ndonga yi dem mayal ginaar yi yaayam may ginaar yi may leen lekk dellusiwaat toog ndax rek orma ju ñu amoon seen waxi way jur abdullah ibn jaafar al marwasi nee na benn waay bu ñëw ban daar nee na man de damaa ta takk woon ba bëgg sàkku ci xam-xam déglu kii sabab yee ko moom bun daar ne damaa tàgg woon sama yaay pour dem wuti xam-xam sama yaay ni ma boo demee ak yow bàyyi naa la àddina ak àllaaxira nee na ma diisoog borom xam-xam yi ñu ne ma déggalal sa yaay bul dem ndax am na ci àq loolu nag am nay tënk parce que day fekk borom xam-xam yaa ngi ko xëy na yaa bëgg a dem barab sàngam gën a mën a jàng waaye borom xam-xam yaa mën ngaa jàng ma tàggu sama yaay damay dem sama yaay ni boo demee dogal nañ àddina ak alaxira mu laaj ñu ni ko toogal bundaar nee na wallahi toog gaa ma gënal dem nga ndax dem naa ba yëg ni la ma doon wuti am naa ko te sama ñaari way jur bokk na ci li ma ko may fi mu ne nii tembe may wax xam naa ñoo xam ni ñi ngi fi mën a jàng bàyyi waxuma la bàyyi seen way jur dem de bàyyi si fi seen i way jur ñu di walaataane li ma wax dégguma ko de lu ma xam la laa wax bàyyi fi seen i way jur ñu delle pamti pamti ci ay location bàyyi fi seen i way jur seen i kër ñuy fanda di mu lekk li may wax lu ma leer la moo tax ma di ko wax ñu na fi xale ci loolu nga lànk gëm ni talabul ilmi fardu leen jàngi ah bu fekkee loolu mooy mën a xaju salaf ay li may wax lu ma leer la kenn nettaliwu lu ma xam la am na benn téere bu ñu wax tabsir imam ibn jawzi moo ko taalif boo ci delloo nee na said ibne amir nee na ibnil munkadir benn guddi nee na man de sama yaay daa feebar ma di ko foqal tànk yi di ko ko bësal sama mbokk mi ñuy wax omar moom dem fanaanee naafila mu ne wallaay bi ñu yeewoo gëm naa ni sama guddi fanaanee foq sama tànk yaay moo ëpp tiyaaba yi fanaanee naafila mu ne bu guddi waatoon nii laay def parce que gëm naa ni fii laa ëppee tiyaaba zeynul abidin al xusayn ibne ali wala ibne al xusayn zeyn al abidin ibne al xusayn moom ku fonkoon way juróom la bokk na ci lim gën a fësi ci fonk way juróom moom nee na moom du bokk ak yaayam lekk mukk ndax nee na maa ngi bañ bokk ak yaay lekk sama loxo jiitu ci ndawal koo xam ni bëtam njëkk na ma ca te su boobaa gëm naa ne dama dëngi samay way jur gis nga bunt bii ak yi ko jiitu ak yi ma xasab waxuma ko wallahi boo ci ubbi da ngay fekk ay toñi toñi toñ ci salaf nañ ko doon dundee te it nag maa ngi tënkaat ab tënk di la wax ni melokaani salaf kat daf ñuy fësal maa fi sarirati lan gëm muy seen aqida lan gëm muy seen i ibadat kooku ñoom la concerné pour ñun ñu xam ne lu dëggu la ci jëf yi la ñuy mën a sukkandiku xam ni lii kuy kafantoog kuy fawant du ko def kon mbokk yi faw nu góorgóorluwaat xalaqaat yi bari na borom xam-xam yi bari na doo wax tey lu bees loo wax ñëpp dégg nañu li des mooy loo dégg nga jéem a jóg jëfe ji ko incha allah yàlla barkeelal loolu kenn ci magi salaf yi nee na boo bëggee li ngay xam muy jariñ boo xam rek mu ni balaa ngaa sax koo xamaat beneen jugal nga dem jëfe ji loolu yàlla dana la ko barkeelal ñu ngi jéggalu ci tënk geeg gàttal bi lépp lu ci jub mu ngi bàyyi ko ci suñu borom ñu ngi koy sante loolu ci mbaa xam na fa loolu xam loolu min na lu dëng ci ñun la du ñu ay borom xam-xam dañuy jéem di jot li nu yàlla wërsëgal ñu xam ko di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain
alhamdulillah santat yàlla subhanahu wa taala di ñaanal mbokk bi nga xamante ne moom leen defal waxtaan bi yaakaar naa ñun ñëpp ñoo dégg ne waxtaan bi nga xamante ne defal nañu ko léegi mu def ci ñun ñu daal di jéem a góorgóorlu daal di jéem a melokaan yi nga xamante ne wax na ko fi ñu jéem cee yar suñu bopp bu ko defee yàlla subhanahu wa taala mën ñoo dimbali ndax ñu bokk ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee wax dañuy tànn la nga xamante ne nii ñoo ci gën a rafet ñoo di koy jëfe te ñooñu yàlla subhanahu wa taala moo leen séddal ak njub séddal leen ni ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy borom xel ñu ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala maa ngi koy may ilman nafian wa risqan tayiban wa amalan mutaqabbala ñun tam ñu leen déglu yàlla taala may ñu xol yoo xamante ne day taataan ginnaaw bi ñu daal di jóg pour daal di jëf kon dañuy yeewu mbokk yi ñu génn dix minutes am na benn activité buy amaat mooy commission yi dañuy def seen plan d'action bu ko defee ñu apprécié ko kon ñu bàyyi mbokk yi daal di génn dix minutes comme ça nga xootaan tuuti subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk